messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre euh, grand soir. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve euh, dans vos salons, dans vos chambres à coucher et également dans les places euh, publiques. On est jeudi et à l'honneur dans Grand Soir dîner ak jamono avec Ousmane Sène mbokk yi ñuy am mbégte saa su jot di feggoog yéen ci Grand Soir tey di alxames yemook nag ci biir Grand Soir ñuy dalal li nga xamante ne moo di dîner ak jamono ndax ak Ousmane Sène Ousmane nag ay ganam nag tey fas yéene waxtaanee pëccoxoo gi nga xamante ne am na ci langue politique bi rawatina ci biir parti ak ci li nga xamante ne moom moo di coalition yi soo xoolee ci biir Benno Bokk Yaakaar pëccoxoo gu métti lañu fa nemmeeku gannaaw ba nga xamante ne Amath Dansokho di kenn si seeni i ñooñ yëkkati ay kàddu ci biir parti démocratique sénégalais itam ñu nemmeeku fa querelle de leadership boo xamante ne fës na fa ci biir parti socialiste itam li ni mel am fa loolu yëpp ñu fas yéene ko pencoo ñan ñi nga xamante ne ñoo ci acteurs yi ciy gagné ak ñan ñoo ciy perdre loolu yëpp fas yéene nañ koo tënk ci li nga xamante ne moom moo di diine ak jamono diine ak jamono ni ma koy waxee saa su jot actualité si lay dox li ni mel nag moo fës si ay bés yi moo tax ñu amal ci ab taxaw seetlu ñu nax ci ànd ak Ousmane Sène ak ay ganam macha allah ay kàngam yoo xamante ne yaakaar naa lépp loo xamante ne xeltu nañ ko ba xelli ko fi rek dina doon njëriñ si askanub Sénégal ne li ni mel moo tax a jóg rajo télévision bu Walfadjri ñu leen di wax ne yéen internautes yi tamit mun ngeen bokk ci waxtaan bi Facebook bu Walfadjri soo leen demee ci diine jamono laaj boo leen fa jébbal rek ngir incha allah ci deuxième partie bi dinañ leen koo jagleel du ma def lu dul nuyu sama séeréer bu dégg wolof bi di Ousmane a jaratu ah, ajaratu joom ah, Diom Ndiaye añaaja paax maa ngi lay fay di la gërëm di la sant di rafetlu sa teewaay ci plateau bi naka noonu itam ñi nga xam ñoom nañu dalal tey comme ni nga ko waxee ñu waxtaanee waxu politique bi nga xam ne tey pëccëxoo bi métti na tudd nga ko ci biir ay parti tudd ko ci biir ay coalition muy loo xamante ne bu fekkoon jàngaro la ñu ne mbas la ndax fees na dell ci langue politique bi ñu fas yéene ko yaatal tey ak ay nit ñoo am ku ci nekk itam teewaayam dafa am solo ci waxtaanu tey bi may fàttali rek ne ci kanam tuuti di nga dikkaat ak internautes yi nga xamante ne aussi dañ leen di sóoraale bu baax ci débat bi nga xam dañ koy relancer ci ay question ak laaj yu ñu jox ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plateau bi nga joxaat leen euh, xam na adresse bi pour ñu mën a participer. Mm-hmm. yaakaar naa ne askan wi ni ngeen waxee dégg ngeen ko di ngeen daw si seen i clavier dem ci page Facebook ngeen dugg diine ak jamono di ngeen fekk li nga xamante ne moom moo di yónnee ci seen laaj wala seen i contribution bu neexee yàlla dinañ ko jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog fii ci plateau bi di ay kàngam yoo xamante ne xam nañu dundinu li nga xamante ne moom moo di politique ci biir réew Sénégal te lépp luñ fi xeltu rek dinañ ko xel li bu soobee suñu borom kon Ousmane du ma def lu dul jox la lenge yi su générique bi noppee rek ñu soobu ci li nga xamante ne moom moo di diine ak jamono jërëjëf seytaan rajim kon mbokk yi ñu ngi nuyu ñeenti nit ñi yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu itam teewaay ñi nga xamante ni itam ñoo fi nekk tey di ko rafetlu ñoo xam ne ñoom la ñuy dalal te ci diine ak uh, jamono fas yéene waxtaane kon ci li nekk ci biir langue politique bi coow li ñu nemeeku ko ci PDS nemeeku ko ci parti socialiste nemeeku ko ci uh, li nga xam mooy PIT ak ca biir coalition ba mu bokk di uh, benn Bokk Yaakaar loolu yëpp nekk débat boo xamante ni itam débat la boo xam ne la làmb yëpp ak yenn ko mooy politique ndax leneen lu dul politique mën na fee am wala def fee amatul loolu yëpp bokk ci ay laaj yoo xamante ne tey fas yéene nañ koo waxtaan ak suñuy gan maa ngi fi ak docteur Ludovic Rosner euh, monsieur Rosner maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi fi ak euh, papa Latir Faye di coordonnateur MJPV monsieur Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi fi ak sama naataango bi di Mademba Ramata Dia di rédacteur en directeur info Mademba maa ngi lay nuyu. maa ngi fi ak l'écrivain Marouba Fall moom itam kenn dootu ko présenté ci yu mel ni ñu waxtaanee tey nga xamante ni itam xel ak xel li monsieur Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay kon maa ngi rafetlu seen teewaay yéen ñëpp ci plateau bi fa yéene waxtaane tey kon li xew ci langue politique bi nga xam ne nag ci biir parti démocratique sénégalais jamono yi gis nañu ne kii di Modou Diagne Fada am na lu mu fa sumboon ci wàllu yeesalaat ci li àddu ci banqaasu parti bi waaye itam mbir mi mujj ci coow ba réunion bi ñu jàppoon sax ne fa lañ war a juboo ci réeroo la mujjee ak pëccëxoo gu métti goo xam ne comité directeur bi ñu ngi doon réuniraat tey jii loolu nag nekk loo xamante ni itam dugguleet ci PDS waaye bi yoon itam mu ñëw ci anam yoo xamante ne yu bees la ci biir parti socialiste itam ñu nga fa ci ay waxtaan yoo xam ne seen biir ci bànqaas yi sax ñu ngi commencé di waroo ay kaddu loolu itam ñu bëri jàpp ne ci élection yi ñu dem naka la Ousmane Tanor Dieng nar a parti bi ndax itam nag xalifa Sall mi ñuy junj ba nga xam ne mouvement am sax présenté nañ ko. naka la koy jàppee moom itam ba mën a nekk benn bopp ci biir PS ndax lu mën a nekk wala day xar ñaar ak yeneen yoo xamante ne ci biir PIT Amath Dansokho génn ne réew mi nag la ñu fal leen ñoom léegi jublooguñ ci wala boo defaguñ ko. loolu itam am yeneen wax yum juróon bi sax tontu ya tàng lool ci digganteem ak waa APR loolu itam moo newaat na ci biir Benno Bokk Yaakaar ci boppam sax discours ba nekkatul benn waxtaan boobu yëpp nag ko bi mu xewee ñangatu eh, politique bi ci feeñ rek mooy itam eh, langu politique bi yëngu na te itam li koy yëngal mooy itam élection yi ñu jëm ndax am na ñu lëngoo te ñu yaakaar ne ca kanam tuuti boo muy tuul itam ku ne dina bàyyi sa morom ak mbagam mu dem ndax itam am na lu ñu soxla tey doon jàngat loolu docteur Ludovic Rosner ci li nga gis ni Euh, seetlu ko ci langue politique bi ak ni mu bindoo nii tey jii est-ce que doon na loo xamante ne bett na la rawatina nag ci kaawu PDS bi nga xamante ne moom moo mujj barki démb. waaw Ousmane maa ngi lay di maa ngi lay remercier di euh, nuyu samay naataangoo xam naa bu baax ñoom ñëpp ay kàngam lañu maa ngi leen di féliciter di leen nuyu bu baax. Euh, man dama yaakaar ne li xew actuellement yàgg na fi ndax parti politique pour di ci xaar démocratie Sénégal fii bariwul de. généralement leader bi mooy falu à vie moo fay toog ba saa yu ko neexee mu bàyyi wala leader bi am beneen liggéey mu dem bàyyi mais pour ñu def élection ne yow mi njëkk njiitu parti bi euh, folli nañ indi keneen du ma ne amul waaye bariwul de kon dafa mel ni lii xew PDS peut-être opportunité la ndax le fait que euh, maître Wade bëgg a imposer doomam pour mu doon candidat mais loolu yàgg na fi mais ñoom ñoo doon wax nii Euh, euh, Ablaye Wade mooy la la la la seule constante tout le reste c'est ay ay variables lañu. Mhm. kon kay loolu yàgg na fi. xëy na nag léegi la am ambition pour defi leneen ñu doog soulever loolu waaye nag li ñu mën a jàpp mooy ci biir parti politique war na am démocratie bu day ni bu ñu demee ba war a am candidat ñu waxtaan suñu biir bu ñu jubawul ñu voté bu gagné ko yaay candidat. koo xam ne nag moom candidat doon te gañewul soit day topp loolu xam ne démocratie noonu la wala mu fi bu bàyyi dem ubbi parti def démocratie kon bu démocratie doxee normalement coow lu am parce que bu ñuy jël ñi ëpp ci ñu ci ànd doon candidat bu dee élection transparente na doon candidat kooku amul coow parce que bu ñu dàkku la ñuy voté nag le vote bi transparent xam ne lii la parti bi wax ñu jàpp ni loolu la démocratie nag ñoo ne c'est la dictature de la majorité lii mbooloo bi lu ñu wax loolu la ci topp donte àndoo ci bu fekkee dem nga mënatoo ko muñ nag nga génn dem sa yoon bu la neex ubbi sa parti politique wala def leen lii xew PDS tey je ne sais pas day sax ñu ngi leen di jiiñ ñi xëy na Macky Sall moo leen jox xaalis boobu fan la jógee parce que nit ji yàgg na génn PDS te kenn jiiñu ko loolu kenn jiiñu ko loolu est-ce que tu vois donc dafa ni ñoom discipline bu ñuy am bu fekkee ñu ngi ci pouvoir bi bu ñu wàccee rek dañu changé loolu si bokk ci ngor yëpp laa jërëm yàgg na ko def tant que ni ngi ci nguur yéen a ngi déggoo affaire baa ngi neex kenn coow waa ngeen dem ba wàccee rek ci fippu ci bàyyi kii kere parti et cetera mais loolu damaa yaakaar ne bu ngeen àndee ci ngor ci bànneex bu ngeen demee ba nekk ci naqar da war a ànd aussi en même temps euh, de la même manière pour mën a xeex mais wàcc pouvoir rek ku ne ñaata parti politique Euh, l'ancien premier ministre génn na Diagne Fada génn euh, na ay dëpp ñu ngi wax ay wax dafa doy am nañ droit kay seen parti man dama yaakaar ni ngor mooy neex nañuy ànd bu méttee aussi nañu kon ñuy ànd mais li nga doon li ngay kaas tey yàgg na fi am te waxuloo parce que yaa ngi ci nguur léegi wàcce nga rek nga bëgg indi ay coow na Ablaye Wade dictateur yàgg na rek dictateur ci parti bi dinañ ci dellu soit léegi Papa Latir Faye bu ñu gisee li euh, Ludovic Rosner wax léegi Euh, Aïda Mbodj euh, moom euh, xamaguñ fi ñu jëm mais moom nee na xeex bi ñu war a xeex ci jamono yi mooy xeex pour nit ñi génn waaye nekkul xeexu candidature loolu peut-être nit mun naa am ne ba kañ parce que itam élection xam naa léegi mu ñëw pour ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moom créé na parti ñii di coow nii peut-être seen génn aussi mën naa am ñu génnee leen wala ñu génnee seen bopp mais ci jamono yi ñu fekk ni neexoo xam naa ne ñu bëri jàppatuñ ne mën nañu raccoler le morceau yow boo gisee loolu yëpp xew ci biir parti démocratique sénégalais ak jamono yi mu xew est-ce que daf lay jox njàngat goo xamante ne njàngat bu dem ci wàllu politique la wala ci wàllu démocratie boo xamante ne mu nga bëgg judduwaat ci biir parti yi ñuy laaj alternance boobu ba léegi. waaw asalaamaaleykum Seydina Ousmane. maa ngi lay siyaar bu baax. di la jaajëfal ci invitation bi. commercial bi ngeen ñëw fii ci Walfadjri euh, sëriñ Sidi Lamine euh, sunu sang di yëkkati suñu nuyoo ak suñu siyaar jëmale ko ci mboolem kilifa yi ci biir yi ci biti ak mboolem téléspectateurs yeeg auditeurs yëpp fu waay mën a nekk ci biir Afrique ci biir àdduna bu mu daj euh, di kontaan lool ci invitation bi quand même dayeeg un frère que je sais très bien monsieur Lodjovic ndax naw ko ci xam-xamam ndax balaa may jàll dafa mel ne loolu mooy sooxe ci réew mi ndax bu dee xam-xam dana ko foll danañu fal leneen waaw luy nuyu itam euh, sama jaam bi moom moom ab jaay la xam naa ne poche ku ko lamb am na lu ci ne waaw di nuyu aussi moom Fall Ndiaga yaa xam sama sëriñ la ndax man ab Baay Fall laa yéen naa Ousmane moom yow moom hmm. sama waay nga waaju baax nga soxna si mu bëggoon a nuyu léegi nag euh, soxna Awa Diop Ndiaye dama ko doon dama koy dencal muy surprise parce que dafa bokk ci ñi ma njëkk a interviewé rajo micro jamonoy université di tàng ou euh, commence encore à la faculté des lettres et sciences humaines fa defal benn interview boo xam ne moom la la jàlle aussi ñoo bokk kër ndax ñoo bokk suñu jaxaw donc ñu ngi leen di siyaar bu baax di sant bu baax a baax ci teewaay bi fi teew donc li ñuy jàngat ci loolu euh, je pense le problème fondamental qui se pose au niveau du parti démocratique euh, généralement au niveau de l'arène politique c'est ce qu'on appelle en fait euh, ce que l'américain le momentum ça, ça veut le choix du moment Dès l'instant qu'on fausse le choix du moment, on fausse tout. Euh, je prends l'exemple du président euh, Diagne Fada. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'égards et j'ai beaucoup d'estime quand même parce que ñun nii ñëpp suñu grand la woon à l'université <coughs> ñu nawloo ko ci lu wér te aussi gis ko mu xeex sur le terrain mu jaraloon ko lu ne mu jaar fa lu ne ñu jaar mu jaar ci lu ne mais je pense bu ñu yegsee ba léegi man fa mu doon xaare mu yëngoo mooy quanton on a annoncé la candidature de Karim Wade fa laa doon xaar parce que secrétaire général ça c'est pas lui ça c'est pas lui kooku Ablaye Wade la et bu loolu jàllee bu ñu dalusee euh, je pense bu ma liiroon moom dana comprendre depuis très longtemps parce que c'est en 2012 que j'ai publié un article que j'ai intitulé politique et réelle politique choix dynamique juste pour dire ñi ngay gis muy nuroog euh, ñi naan way machination la nangam sangam L'objectif principal, c'était de diviser le Parti démocratique sénégalais en lui choisissant en préséance un secrétaire national à la personne de Karim Meïssa Wade donc loolu moo doon wax ji donc comme noonu la demee nag je pense la ma doon xaar ci moom mooy ba ñu proposer le candidat en fait Karim Wade ma gis ko mu taxaw ne moom itam dafa bëgg a nekk mu jaral ko lu ne aussi mais pas nga ñëw nga ne da ngay xëccoog Abdoulaye maanaam poste secrétaire général bu loolu jàllee je pense c'est toujours le momentum qui pose problème bu ma doon moom. bu ma postulé wul maanaam peut-être xëy na amul ambition présidentielle mais bu ma postulé wul la may jëf suma combat mooy xeex au moins ba ñoom ñi nga xam ni ki ñu ngi ci kaso bi génn mais bu ñu toogee ñu ne alors dañuy proposer léegi Ablaye Wade comme euh, le président Ablaye Wade di ko nuyu passage aussi parce que quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi ku ma xam-xam ci moom loolu la preuve euh, li may wax dafa bokk ci li nu fi téye moi je suis aux États-Unis mais la tax dañu may doole ba ñu mën fee toog ba léegi comme ni ma koy faral di rappeler dafa am lu mu bind ci monument de la renaissance mu doon lu lu ma dooleel quand il dit jeune d'Afrique jeune de la diaspora si un jour tes pas te portent au pied de ce monument pense à tous ceux qui ont eu à sacrifier leur vie ou leur liberté leur liberté pour la renaissance de l'Afrique je pense que ça c'est très noble auteur loolu déjà kooku ku ñu war ku ñu war a warmal la <coughs> mais bu ñëwee ñu ne dañ koy proposer encore comme secrétaire général secrétaire national en fait tey ñoom ñëpp ñu ne alors nanu way nanu ko kii il a été plébiscité pour lan moo changé donne bi donne bi lan a ko changé c'est le rapport le rapport des Nations Unies parce que bu ma ci amoon pouvoir je dirais au président Macky Sall comme na ma ko bindee dans un article que j'ai intitulé mettre voilà le verdict non lieu total juste pour dire acheminement foofu la ñu jëm parce que comme je dis moi je le dis je le réitère euh, je n'accorde aucune crédibilité ça respecte pas en fait euh, le droit international et je savais que luñ ci mën di def itam bu yeggee ci càppandaw la lii lay jur donc bu demee noonu ba rapport Nations Unies génn ñu ne sur la détention arbitraire donc attention doon bi changé na ndax il se pou avant loola di génn c'était possible que Karim reste en prison jusqu' après même les élections mais ce n'est plus possible si on veut être réaliste parce que je ne pense pas connaissant mon frère et le grand frère Macky Sall quand même <laughs> un orfèvre je peux dire euh, en matière politique car laa da ko yar je ne pense pas que dana def le bras de fer avec les Nations Unies sur ce terrain ça vaut pas la peine parce que la preuve ko bëgg a piéger foofu lañ ko bëgg a piéger parce que si jamais le Sénégal subit des sanctions sous le magistère de Macky Sall c'est c'est fini pour lui je pense pas que dana def loolu mais mm-hmm. li changé donne bi mooy le rapport des Nations Unies xam na ne incessamment moo xam kañ lay doon euh, Karim va sortir de prison loolu lu la man la ma ca proposé le président d'abord na mënoon devait casser la CREI le 23 mars euh, transférer le verdict à la Cour des comptes et accorder la liberté provisoire à Karim Wade à défaut de cela qu'est-ce qu'il va falloir faire moom il doit poser de tout son poids sur la Cour suprême pour tout simplement casser la décision euh, tout simplement de la CREI ndax boo ko deful aussi yu mel ni laa ci doon bañ boo gisoon ñu di ko wax mais Diagne Fada li muy fippu mhm. effectivement c'était possible bu fekkoon ne ñëla dañuy def pendant six ans parce que élection yi enjeu dootul amati. Mhm. mais de enjeu bi dafa changé nag. ndax diggante six ans boobu c'est tout était possible. il était même possible moom mu nekk candidat. Mhm. bu fekkee ne que la gënul mais bu rapport bi génnee ça change pratiquement données yëpp donc c'est tout à fait normal mu yëngu mais je pense c'est un combat légitime quand même. d'accord pour euh, la survie de la démocratie. de mais c'est un kon euh, Marouba Fall loolu boo ko déggee nga xam ne tey jii nit ki aussi wax li ci xolam ci parti ba mu bokk nga xam li mu mer est-ce que gënul mu denc ko ba dal sa kaw wala mu daanu sa kaw ci démocratie boobu ñuy wax mais tey jii aussi boo doon analyser situation bi ni mu demee nii est-ce que da nga gis ne tey ñi am nañ chance su génn ci yëf yi parce que itam euh, li Pape Latir wax di rapport Nations uni boobu benn la ci ñaareel gis nañ ne tey wax nañ Mamadou Lamine Keita basam d'accorduñ ci ku di mel ni Abdou Khafour Touré déglu nañ ko mu ne bu dee combat de principe il est pour mais am na yoo xamante ne àndu ci doxalin yu bees yooyu yëpp euh, greffé wu ci mbir mi est-ce que wane na rek nii am nañ chance pour réussir démocratie boobu ñu sàkku ci biir. man euh, bu ma leen nuyoo ñi ma bokkal jataay bi nuyu la yow mi ñu invité nuyu borom kër gi ah waxtaan bi détails yi dama ko bëggoon a économiser pour wax li nga xam ne lii moom mooy tax. ndax lépp ci politique bi la. Mhm. mooy nan lañu ñu concevoir ci suñu réew mi ak réew yu deme nañ suñ yos yi ndax politik yaakaar naa ni lu baax la ndax buñ koy def mooy ah ñu saytu réew mi réew mu mu mën a doon ah ba mu jaar yoon ba ñëpp a dëkk góor ak jigéen mag ak ndaw. ah ña nga xam ni ñii sax euh, yàlla daf leen teg laago ñu mën fa dund ci dundin bu rafet politique boobu ku nekk ci réew mi dafa yeewoo rek war nga ci mën a dugal sa loxo wante boo gisee politique bi jaxasoo ba am ñoo xam ni sax dañ cee bank seen loxo mooy nañu ko jële ndax euh, tubaab dafay wax le jeu politique fii dégg naa ci jataay bi fii sax ñu politique yi politique politique po nag ah ku fa indi sa dëgg boo moytuwul ñu boole la ak sa dëgg dëggaate loolu moom mooy indi euh, jafe-jafe yi ñu am jafe-jafe yi nag du ci suñu réew rek la am ak réewu Afrique yi mais fépp la am mais nag fii la gën a fese ndax ay pays su développés yoo xam ne ñi mënaguñu seen bopp seen loxo jotul seen gannaaw ba ñu bëri yaakaar nañ ni ah fa ñuy suqali ko mooy dugal leen ci politique bi nekk ministre nekk député walla nga nekk ci parti boo xam ni bii ànd na ak nguur gi loolu moom moo tax jafe-jafe yu bëri ñu am ko de d'état militaire yi nga koy gis nga gis aussi ñi nga xam ni ñi yore nañu nguur ñuy euh, soppali constitution bi pour defar ko ba nga xam ne bii dana leen euh, yombalal la ñu bëgg ah wala gis nga mandat yi prolongation mandat ñu bëgg ko fii amoon na fi ma Burundi loolu mooy coow li ah ñenn ñi ah nga xam ni dañoo nekk ci ay parti te seen parti duggul ci pouvoir ñuy def li ñuy wax entrisme nga xam ne da ngay dugg pour am dara waaw leneen li mooy ah comme li ngeen gis fan yi euh, premier ministre bi jóg bi fi nekkoon créé parti ah gàkku créé parti am ñi ngi léegi ci presque trois cent parti ci réew mu ndaw nga xam ni lu mat cinq millions du ñu voté xam nga yooyu yëpp li ko indi mooy politique bi ah defaruñu ko pour jëriñ pour intérêt général pour ay intérêt personnel particulier def xaalis ci sa poos ah am sa kër yu rafet dajale say oto ak say loolu moom moo indi kii ah léegi dañu jëm ci ay élection loolu indi na coow ci parti yëpp comme ni ngeen ko gisee léegi ah parti au pouvoir bi problème am mooy ñi mu àndal ndax itam boo demee ci pays démocratie yu mag yi boo jëlee États-Unis nga jël France grand parti du ñu dugg mukk ci euh, gouvernement de majorité élargie parti yu ndaw yi ñoo si dugg mais partie bu mel ne PS par exemple wala parti bu euh, du ci dugg ndax parti bu je considère que au Sénégal parti PS partie bu mag la mais par exemple da ngay xool un libéral régime bi ñu nekk léegi libéral la mm-hmm. waaw nan la libéral mën a ànd ak socialisme ànd ak communisme plus grave que ça xam nga ñooñu kon dañu jël euh, politique bi pouvoir bi comme gato gato bi nag buñ ko tegee ku ci ne da nga cee bëgg sa pàcc loolu moom moo indi problème ah PDS la fa xew ñëpp comme ni ko ñëpp waxee fii rek waroon nañ ko séentu ndax itam ah bu fekkee ah parti ka ko sos moo ko moom siis ya ñuy toog sax moo ko moom te ku xam politique ni ñuy politiquer Sénégal ki nga xam ne mooy président bi bu ñuy def meeting mooy luye siis yi mooy joxe paas jënd xartum di joxe xaalis ku ne mu jox la xaalis finalement moo moom moom moom kon nag lu muy dogal loolu rek moo fa am te loolu moo doon Ablaye Wade am Ablaye Wade jikkoon na fi am ay problème ak ay ay ñu àndoon ak moom ba ñu dem ba tribunal mais finalement moom la ñu jox lëg ndax siis yi sax turama ci ne siis yi parti bi sax turama ci ne ndax moom mooy financer mooy def lépp kon te comme ni niñ ko rappelé fii euh, ñëpp dañu doon wax ni PDS ñun ay Baay Faal lañu ay murit lañu. ndigal la ñuy wéy benn constante moo fi am mooy Ablaye Wade léegi bu ñu demee ba moom tam ah mu naagu ba ni man la woon léegi suma doom la te li ko indil problème yëpp ci doom ji la jóge ndax ba 2007 amul woon problème mais bi ñuy wax affaire dévolution monarchique fala problème am yëpp jóge bi mu wàccee tam bàyyiwul ah parti bi nangu ko bàyyi ndax yaakaar na ni après moom doomam la mhm. comme niñ ko waxee yaakaar naa ni foofu la nit ñi waroon a euh, waa si waroon a fippoo mhm. ndax itam yow doo toog lekk ba pare ni sa doom la mhm. et puis yow rek sa doom moo gën ñëpp xam nga kooku tam ku am jom sax war foofu la ñu waroon a amee lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñaxtu mhm. waaw léegi boo demee ci euh, parti socialiste mhm. ah Tanor wax dëgg yàlla liggéeykat la depuis Abdou Diouf xam nañ ko mais nag itam yàgg na ndax dëgg dëgg dëgg yëf yi moom boo demee ba mu yàgg dafa war a am alternance fépp mhm. du ci bopp réew mi rek bopp parti mais Sénégal mbootaay yi sax ku fa toog doo jógati te boo jógee da ngay yaakaar ni ah ka nga tànnal sa bopp moo fay toog mais nag loolu ci suñu société la bu ngeen duggee tata da ngeen di xool da ngay gis koo xam ni kii day dem ba war a wàcc di xool kan lay jox palaasam loolu aussi c'est notre société moo mel noonu démocratie amu fi démocratie amul fi ndax yi préjugé yi ak nit ñi nañuy doxalee moo demee ak masra bi dafa bari. dafa bari waaw comme li ñu bokk daal nañ ko teg. Mhm. ñu wax li ñu ci war a wax. ñëpp loolu amul. Mhm. du mën a dox du mën a bokk ci dara aussi. Mhm. ba pare nga ni ànd naa ak yow wante ànduma yow ci lépp euh, comme sorti euh, ah, suñu maam dans ko. xam nga ni tamitam ki nga war a waxal yow ministre d' état. man ngaa wax ak président man nga wax conseil de ministre la ngay wax mais boo génnee si biti di wax yenn yi looloo tam kenn mënu ko nangu loolu kenn mënu ko nangu doo lekk ci ndab li ba pare mel ne da nga ciy xëpp suuf waaw ko dinañ ci dellusiwaat léegi Marouba ba euh, Mademba Ramata Dia tey itinéraire yooyu nga xam ne Marouba mu ngi ko doon tracé yow nga defoon ci ay seetlu yu bëri ci semaine yi ñu génn boo ko doon jàngat tey wax su wax na ay ñu àndoon ak Abdoulaye lu yàgg te séparé ak ñoom parti bi ak li muy dund tey boo ko doon résumé tey ci tënk ci jafe-jafe yi ñu dund nii. asalaamaaleykum mbooloo mi. auzubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim. bi ñuy jullee bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi. di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu bépp téléspectateur bu ñuy seetaan. moo ci wàll woowu di nuyu aussi ñi ma toogandool ci plateau bi. ci wàllu woowu bon boo ñu xoolee taarixu réew mi ci wàllu politique. dinañ gis ne PDS dafa doon benn parti boo xam ne di tubaab di wax particulier doxalinam musu bokku la ko kenn li ko waral mooy dafa am lu lu lu wundu parti bi lu lu lu dooleel lu lu parti bi fondement fondement parti bi gars yi bi ñuy sos parti bi 74 ba léegi am na ñeent fukki at ak benn dañoo mànkoo ci benn mbir sunu kii wax na ko léegi Ludovic mhm. mooy benn constant loolu sax dafa doy waat parce que ay nit àndandoo yéen ñëpp ngeen am xel ngeen leen kii lu mu wax loolu lu mu wax leen keneen xalaatu leen keneen war sa sañ def leneen mu boole aussi contradiction bu nekk seen biir mooy PDS dafa doon parti boo xam ne seeni bopp ñu ngi tuddante frère ak ay sœur waaye frère yoo xam ne foo leen fekk ci guerre lañ nekk bi ma leen xamee ba léegi 74 ba léegi ci guerre lañ nekk donc boobu tamit dafay doy waar troisième bi le parti ay été toujours une propriété privée et personnelle de maître Wade gestion patrimoniale boobu yëfam la donc gestion patrimoniale lan lay indi absence de démocratie interne démocratie mënu foo am parce que maay joxe maay buur maay bumi kenn fu ma neex ngeen di xool bu bu loolu wéyee aussi ñooñ ñëpp di wax tey di wax waxu renouvellement renouvellement mës sa am PDS benn yoon lañ ko jéem mooy en quatre-vingt-dix-huit te simulacre laa ko mën a tuddee lu niroog renouvellement bi ñëwee ci pouvoir bi ba 2012 mosuñu renouveler donc cela se pose léegi nag nga toog ba 2015 ba ngeen perte pouvoir bi nga ne da ngay te yow boo xoolee sa bopp yow moom di wax renouvellement sa posture yi nga am yëpp kenn mosu ko renouveler Ablaye moo lay xool mu nga neex ko mu wóor mu wóor ko ne mu am ci yow yaakaar mu ne la diw toogal diw kii mooy place bi kii mooy place bi. léegi boo interroger tamit histoire u PDS ñi ñi doon ñi ñi rebelle wu yëpp après mujj gi dañoo dañoo dañoo dañoo toog jàpp seen ñàmbur war góor gi yow yaa boo fàttali ko Serigne Diop kii nu mu tuddati Jean Paul Diaz Ousmane Ngom amoon nañu fi benn foron mais nu ñu mujjee ñeneen ñi aussi ku mel ni sa Seck ak président Macky Sall ak Aminata daal mu jige dañoo dañoo bàyyi partie bi dem seen ba léegi Ablaye Wade toogaat fi mu toog bu loolu wéyee aussi xool nañ ne deux ans ngi nii Ablaye Wade biñ biñ daanoo pouvoir ñu tegee deux ans ab fi toog na deux ans ñëw ci réew mais gisoo kenn ku yëngatu kenn yëngatuwul dafa mel ni PDS existé wul ñi nga xawoon yëngatu ma président Macky Sall tiita na leen teg lu nekk benn épée Damoclès sa kaw wala ne boo yëngatoo mu kii ñi mu tere leen territoire mais kañ lañ yëngatu bi Ablaye Wade ñëwee mooy sorti wam ba bi muy ñëwee fii waa rentrée boobu ba minuit mu jóge kii nu mu tuddati aéroport dox ba présidence réew mi ñëpp tiitoon donc ça veut dire que le PDS en réalité c'est Wade mhm. mu neex mu nangu looloo am léegi nag mbir day dox benn mbir boo xam ne li tubaab di wax dafay am durée de vie quarante et bu ko mbir doonee day soxla mutation day soxla yi ay changement te ñoom lan mooy seen slogan mooy soppi mhm. soppi mooy lan changement changement boobu nag moo kii léegi nag ñan ñoo ko bëgg a moom mooy Modou jaañ Fada ak ñoñam léegi dañu bugg légitimité ne ñoom am mais léegi beneen problème aussi xool légitimité PDS mën nañ jàpp ne kenn rek moo fa am légitimité mooy président mooy Ablaye Wade pour lan mu am légitimité moom kenn parce que ñoom au moins moom congrès moo ko faj moo ko fal donc moom rek mais ñeneen ñëpp seen poste yi nekk ñëpp Ablaye Wade la neex mu teg leen fa donc boobu beneen problème absence de démocratie interne boobu ci biir parti bi beneen problème léegi bu loolu wéyee mhm. am nañ droit mhm. ñoom ne soxla nañu renouveler affaire yi wala affaire mais li kii wax dafa am solo mhm. est-ce que moment bii la mënoo toog nag ba mu créer ba ba mu jël ba muy nommer doomam secrétaire général kii ne candidat la ak yooyu yëpp avec son coup de génie politique yéen waxu leen dara ngeen ànd ci ba léegi ngeen bëgg indi yeneen affaire mhm. boo am nañ ci droit parce que légitime parce que boo xoolee fada fada mhm. histoire am ci PDS moom PDS la nàmpe loolu la la xam xamul leneen mhm. am na ci la boo xoolee aussi ñoom ñuy wër kii bi yëpp am nañu aussi benn profil bu intéressant mooy am nañu base boo xoolee ku mel ni ay Aïda Mbodj Bambey moom moo ko moom boo xoolee moom Mamadou Lamine kaytaa moom moom fële bi ñoo naa nga xool moo du Diagne Fada moom moom kii mais est-ce que loolu doy na fi mu toll nii pour ñu yëngal parti bi wala de c'est ça la grande question. bu ñu war a poser dinañ ci dellu siwaat léegi euh, Ludovic Rosner gis nañ ne en général les yi mos a yëngatu yëpp ak numéro 2 yi. ils ont payé cher leur ambition politique boo ko seetloo ca ñëkk ko jaar ak Ablaye ba tey jii ak yeneen parti sax yoo xamante biir parti socialiste mos na fa am tey jii gisoon nga aussi bu yàggul l' épisode Mbaye Ndiaye Moustapha Cissé Lo bañ leen dàqee assemblée nationale mu indi fi sax kaw jurisprudence foofu parce que ñoom démissionné woon dañ leen dàqoon loolu nag tey jii ñoom Fada euh, commencé songu mbir mi mu war leen jaral lim leen jaral ndax mën nañu àgg foofu yaakaar naa est ce que ci côté boobu yaakaar nga ne vraiment tey ñu ngi ci sur une bonne voie bu tax ñu mën a réussir li parce que combat bi niroowul ak lu yomb. xam nga guerre na waaye du toujours lay bon. ndax bu ñu demee ba mbiri jaxasoo euh, kenn xamatul responsabilité guerre baax na pour bu guerre bi jeexee ku ne xam sa place ba pare toog fa lu waa waxoon les guerres sont bonnes pour l'humanité ñu xam rapport de force yaa mën yaa def li ku ne toog sa place mm. bon mais euh, xëy na dafa am li ci suuf loo xam ne nit ñi xamuñu ko ndax euh, lii sama xarit wax PRS ça se résume à Ablaye Wade je me souviens dañu doon dem dem élection législative boo xam ne Ablaye Wade du kandidaa obligé dem indi photo am su ñëwul du baax parce que dafa am charisme quoi qu'on mm-hmm. ah nit ñi euh, parce que ñu bëri sax bu ñu dee voté même pour les législatives mm-hmm. dañuy voté pour Ablaye Wade et non pas pour le PDS gis nga ni on a vu que ñu waa PDS yu bëri ñu ne finalement Ablaye Wade def nay mais surtout erreur du entourage moo tax ñu wàccee kon moom moo doon ciment wu PDS moo doon ciment wu moo taxoon ba PDS taxaw nit ñi gëm ko pour son charisme pour xam-xamam ak pour dip ay diplôme te ñoom sax dañ ko xam ndax chaque jour il faut ñu woo ko pour affaire mën a nekk effectivement bi am na wax demee mais am PDS n'existait plus kenn waxul dara kenn yënguwul donte ñu ngi ñu ngi leen tëj kaso bi mu ñibbisee la gars yi commencé fi bu di wax kon moom am na importance ci parti bi te boobu ba tey yéen a ngi leen dara. pourquoi ngeen xaar ba léegi bëgg a fipp kon. am na lu ci tey am na lu ci ne parce hmm. que alors man aw ma ci benn preuve mais ku ku ku la ne alors xëy na mag Sall lañ jox xaalis bon dama wax ne dëgg la mais dinaa ci ñaaw jot parce que man maanaam pourquoi ñu xaar ba léegi di def loolu alors xëy na nag euh, parce que mooy lii euh, li sama xarit bi wax aussi. Maroum Ba Fall. politique la ciy dugal nit ñi fa la erreur bi nekk am na ñoo xam ni. am nañ alal ba pare am xam-xam ba pare soxluñ dara ci xaalisu xaalisu réew mi dañuy politique parce que bëgg nañ mu baax mu jaral leen lu ne am na sax ñoo xam ne rey nañ leen sax ba ñu dee mais ñu ci bëri tey dañuy dugg pour seeni poche mooy may phénomène de transhumance yaa ngi teel parti nga ne fa di liggéey am fetaranga parti bi wàcc ngay ut nooy fexe ba dem ci beneen parti mais dafa doy waar man j'ai envie de lancer un appel pour ne leen moom warkat bu leen ko topp boo toppee si mu ne leen <clears throat> lii mooy sama xalaat nga topp ko ba si yàgg mu wëlbati ko dem ci keneen mais bu ko topp xanaa moom moom politicien la. politicien bon du ñëpp a ñëw war kat mais généralement ñoom noonu la ñuy def mais man li ma jaaxal mu ñi leen di topp ku leen ne affaire bi bleu la nga topp ko mu wëlbati ne rouge la nga toppaat ko mais yow kon xanaa à moins que nag muy stratégie. dañu topp rek pour am ci dara ñun tamit bu ñu amee ngente mu mu financé bu ñu amee mariage mu financé bu ñu seen doom ñu ko ñu finance ñoom aussi nit yi dafa ñu ah. ñu ci bëri nag leader ak militant yëpp lu leen dugal ci politique mooy xaalis mhm. amuñu ci benn ngor mhm. est-ce que pour certains partis euh, cas aussi effet d'usure du ci am parce que mel nii Fada ku gis xam ne mosul ñàkk dara ci parti bi en tout cas teraanga ñëw jot na ci am na ñeneen ñu des amuñ dara mais peut-être am na lu fa téye ci biir parti bi amuñ na mo tànkoom Fada est-ce que effet d'usure aussi du ci am yàggaay bi waaw mais c'est vrai que aussi PDS yàgg na quand même xëy na waruñoo euh, bouleverser lépp mais euh, leçon yu war tirer ci élection yi war na tax bu ñu jël ay ay ay ay ay ay changement en tout cas ay ay ay ay ay ay évolution yoo xam ne war na mën a am mais est-ce que am na nañu démocratie interne boobu am na ko on sent le PS est un grand parti discipline lu ñu coow coow coow il se retrouve finalement xëy na xaw ma naka lay demee bi pam mais am nañ base am nañ implantation mais est-ce que discipline boobu am na PS biir parti mun nañ discuter c'est pas méchant même ci biir kër sax borom kër a jox xalaatam jabar ji ne d'accord ma ci dara new ci ngeen discuter discuter mais l'essentiel bu ngeen paree ngeen jël décision boo xam ne mooy arrangé ñëpp mais boo xoolee mbir mi soo xoolee ba ci biir a biir a biir problème ay intérêt moo ci nekk. moo ci te gis nga PDS dafa gaaw par parti politique en général. Mm-hmm. parce que man maa ngi doon comprendre pourquoi ci biir PDS bu ñu tajee Karim Wade ak ñeneen a ak ak yeneen leader kenn waxul xëy na nag tëjum Karim Wade am na mu arrangé ah. yi nga xam ne amoon nañu ambition te ñu Karim bi arrangé na moo tax moo solo dégg sax ñu wax ci ñu ngi ne tekk waaw léegi comme décision bi comme tu dis ñëw na léegi ñu ne alors Nations Unies wax na xëy na xam Karim Wade dana génn ñu ne affaire bi ça change encore ah. c'est un problème. kon jeu d'intérêt la. député même chose da ngay fal député nga ne ko luy sa mission mën a jàppale Macky Sall Macky falu la booy wàcc Macky Sall du la jàppale Macky Sall booy wàcc député du ko du ko tax a jóg mais c'est grave quand même un nga campagne ba dugg ci kër ñu fal la nga taxaw ne man ak Macky Sall jàppale. kon jàppale woo peuple bi. d'accord dafa doy waar. ce que tey parce que ñu ngi jiiñ ñoom moo Diagne Fada li nga xam ne itam moo gën a soxor ci mbooloo mooy jot nañu xaalis xam naa ku ca jotul wàllam léegi mu tàmbalee am xel mu ñaaw ci mbir mi parce que loolu itam bokk na ci li euh, faagagal mbooloo beneen ba itam dañoo gis ne ci biir waxtaan ak li nga xamante ne xew na tey mën nañoo jàpp ne ci diggante. Modou Diagne Fada moom nga xam ne ñu ngi koy jiiñ ay mbir est ce que bu fekkoonte ne dañ ko jox pour mu faagagal PDS est ce que faagagal PDS tey day tekki rek ne mën na doon doole Macky Macky Sall président Macky Sall ak partie APR est ce que pourquoi pas un autre koo xamante ni itam nañ ko jox doole boobu. waaw mhm. euh, Seydina Ousmane. Euh, en fait comme comme je dis souvent nit aussi la nga xam ci moom d' abord. Euh, comme li may faral di wax rek même euh, pour un, un sur un cas très récent. du boo xam du ma ko tudd ndax bokkul ci sujet bi. en fait am na fu ma défendre waa ji ñu ne moom lu tax nga def ko man la d'abord tubaab dafa am lu mu wax nee na l'accusé demeure toujours innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité donc damay gëm ne fa Fada d'abord damay gëm ne en fait il est innocent quand même parce que am na loo xam ne je pense yenn yi sax xeeb formation bi am à l'intérieur même du parti démocratique moo tax ñu di ko ñu war ko di wax parce que quand même Diagne Fada n'est pas n'importe qui qu'on puisse dire comme je dis il est le candidat idéal ou pas ça c'est pas mon problème je le dirai pas parce que je pensais autre chose xëy na bu ambition président wala quelque chose comme ça. il n'est pas son premier cas d'essai defoon na fi waar wi à l'époque FIPO ba am. ay député ci hmm. effectivement effectivement mais dans le comme bu ñu naan ndax dañ ko jox xaalis. man de bu amoon dana ma bett lool li ma jot a xam ci nit ki xaw ma ko personnellement mais nit aussi dañ koy jàng dañ koy profiler defal ko profil. je pense pas que tey bu dajoon bu fekkoon euh, le président Macky Sall recevoir na ko xëy na mën nañoo waxtaan ci ambition mën nañoo waxtaan ci yeneen i enjeu parce que aussi euh, on peut pas dire aux gens de ne pas avoir des ambitions ku ne am nga droit am say ambition mais je ne pense pas que euh, ces ambitions là euh, s'expriment en termes de francs ah bu amee man dana ma bett personnellement et li ma gën a jaaxal mooy bu jógee ci ku mel noonu nga xam ne formé nañ ko niveau du PDS waroon nañoo ràññee ci lieutenant relativement ñi ñu mun a wooye lieutenant Ablaye Wade mu le président Ablaye Wade muy doon nit ñoo xam ne des hommes de conviction Diagne Fada ba le président Diagne Fada pour man comme euh, le premier ministre Souleymane Ndéné ñoom euh, le terme n'est pas très correct mais baal ma utiliser ko certainement ñoom dinañ xam li may wax c'est-à-dire euh, damay wax ne dañuy yéex a far ñi ci teel a far teel a jël seen i responsabilité taxaw nañu parce que l'objectif xam nga lu nu mën di wax ab Abdoulaye Wade est extraordinaire moi j'admire le personnage parce que bu ñuy wax politique c'est le maître du jeu c'est le maître du jeu ñu bëri dañ la naan waaye newoon na PDS na fi toog cinquante ans man la mais attention waxu leen PDS la famille libérale la wax mhm. dans l'article là may tudd naan politique et réel politique choix dynamique décliné na maa ngi def Abdoulaye mu ne ci digg bi ak ñeenti candidats mi nga xam ne moom lay am la famille libérale ñeenti candidats yi nga xam ne moom lay am en tout cas des candidats que je dirais sérieux sans pour autant dire que ñeneen ñi sérieux mais ñi nga xam ne daal seen profil taxawoon na en 2017 ou 19 parce que gars yi ñu ngi ci joué ba léegi. Mm-hmm. je crois sincèrement que le président Macky Sall quand même c'est un homme de parole bu ko waxee je pense qu'il va tout faire pour mais quand même nous restons bu loolu amee dama teg président euh, euh, Abdoulaye Wade teg le président Macky Sall teg Karim Meïssa Wade teg Abdoulaye Balde teg Idrissa Seck ñu dem à la conquête du pouvoir ci nii mbala ca naa parce que aussi da ngay dégg ñoo xam ne tey dama ci dégg ñoo xam ne sa xëy na xëy na c'est pas au sens propre du terme ils sont pas initiés même à la politique en tant que telle dañuy toog naan way am wax ju sax yoo xam ne yenn saa yi ñu ñàkk war ma jëmale ko ci ci président makisal Sall ma c'est parce que xamu leen politique Le meilleur service que Macky pouvait rendre à Abdoulaye Wade, c'était de mettre Karim Wade en prison. Le meilleur service que Abdoulaye Wade, euh, le président Macky Sall pouvait rendre à Karim Wade, c'était tout simplement de le mettre en prison. Aujourd'hui, parce que si un, un passé récent, on en est. J'aime pas trop dire, way naan way bureau de vote am nangam mais évaluer le bureau de vote ba nga évaluer ko tey boo tuddee Macky sal le président Macky sal boo moytul moom nga cee teg wala ñaareelu nit wala ñetteelu nit ko Donc déjà, ça c'est un excellent service, comme l'autre disait. En fait, euh, il y a de ces services qu'on ne peut rendre que par l'ingratitude. nous. Mais en réalité, pour en fait les disciples, nit dana jàpp doomam tëj ko kaso dafa mel ni nga jël sa doom jël ko ne manque yóbbu ca lu séeréer ya ñi gàddu ay yatake nangam soxla si ne la bu bu mu dem ndax kooku benn amour filiale la boo xam ne waaw mais yow mii góor xam nga ne yóbbu ko foofa moo gën ci moom ndax moo koy boole ci góor ñi waaw donc tey pour revenir un rek Euh, le président Diagne Fada du ma gëm ne ba keroog nag waxuma ne amut mais du mën a gëm ne dañ koo jox xaalis rek certes c'est possible mu dajeeg le président Macky Sall mu am nu mu waxee moom itam comme j'ai dit tout xam nga lu jiitu lii ñëpp jàppoon nañ ne bu ñu ne six ans de prison la Karim Wade di di di tëdd ku mu neex daf ko candidat mais bu fekkoon ne dafay tëdd six ans yi du fi nekk kon du jaar ngay xëccoo secrétaire national ak Abdoulaye wat parce que yow demain tu vas penser que alors budul Karim je peux être le plan B mais d'ores et déjà que rapport bi génn na te Sénégal bu ñu koy tudd di ko tudd du alalam ju bari mais d' abord ces ressources humaines de qualité moo tax ñu di ko wax. donc bu loolu amee ñoom ñu gis rapport ba xam na nu ne ci nii mbala ca naa. je dis pas que danañu tiddi bunt bi ne ko génnal mais ce qui est sûr ah man de li ma gëm bu dee logique poli logique am na ci politique bu ma doon le président Macky ce que je vais faire je pèse de tout mon poids sur la cour suprême pour casser le verdict. pour en somme je ne pense pas que quand même euh, la dignité du président en fait Diagne Fada. puisse être monnayé en termes de francs ah. entre man en tout cas c'est vrai qu'en politique moom on voit tout on voit n'importe quoi surtout dans ce pays mm-hmm. parce que que li waaja doon wax rek pour que la cité soit bien gérée mm-hmm. il faut que les rois deviennent philosophes mm-hmm. sinon les philosophes deviennent de surtout en fait ceux qui font un bon usage tout simplement de commencer encore de la matière grise donc bu dee roi bi moom euh, en fait euh, maîtriser na les rouages xam effectivement ni société du doxee je pense loolu roi boobu dafay mujjee nekk philosophe en même temps bu fekkee loolu amul tuñ tuñ lay jur te boobaa itam ñu war a bokk duñu ci bokk waaw mais foofu daal lay daana la ne la euh, mhm. bu amee lu mën a nekk la parce que y a pas impossible n'existe pas en politique mhm. ay impossible n'existe pas mais je pense que je ne pense pas du tout que mu nekk. mu mën a nekk xaalis daal xaalis xaalis xaalis. je ne pense pas Papa Latir Faye sinon ça se mesurerait à des centaines de milliards peut <laughs> nga xam ne tey jii kon boo seetloo am na loo junjoon sànq te itam dafa mel ni moom moo taxaw ci réew mi mu mel ni paysage politique bi tey euh, ñoom ñooy giddee réew mi ñoo koy dawal ñoo koy tourner fu leen neex. nit ñi aussi sax boo nekkee intellectuel loo mën di wax walla loo mën di yëkkati presque duñ ko xool mukk ci lu dul ci côté loolu daal politique la loolu nag discours boobu nga gis nga xam ne les gens pensent de manière politique boo pensewul de manière politique ñu politique loola wala ñu dal sa kaw loolu boo ko gisee ci réew lan la lay fàttali vraiment ci wàllu développement ak loo xam ñu ngi koy xaar ci réew mu jëm kanam. waaw loolu mag ñi yow soo <laughs> bërewul itam ñu bëre daanu ci sa kaw te léegi comme ni ma ko waxee rek dañu yaakaar ni ah nit bala moo tekki dara il faut mu politique pour mën a dimbali boppam. dimbali ay mbokkam joxe ay billet euh, màkk fii euh, toppatoo ay bourse fii et cetera et cetera donc moo tax ñi dugg ci politique bi yëpp ñenn ñi daanaka dañ leen see bëmaax rek ndax itam comme yow boo politiqueul nit ñi politique jiite la te ñi nga xam ni ñii ñi lay jiite peut-être yow yow yaa leen gënu demin yaa leen gën a set loxo yaa leen gën a rafet xalaat yaa leen gën a man li réew mi soxla wante nag boo duggul ci politique te loolu moom mooy suuxal réewu euh, Afrique yi ndax am na benn euh, waxtaan bu mu waxtaanoon ak benn kilifa ma ne ko li ñu war a def léegi mooy ñu tëj école yi ak université yi ndax dama seetlu ni yow da ngay investir ci benn citoyen ba mu am compétence bu la jubsee nga daw ko mel ni kuy daw dëmm parce que Iba Der mas na ko fi wax mu ni la crime au Sénégal c'est d'être compétent léegi comme ni ñuy def ci yenn parti yi da ngay dóor ci taabal ji yuuxu saaga nit ñi ngeen dóorante chaise ñu soog laa jox li nga ki mais am na gor mënul loolu gor mënul loolu wante politique bi mooy niñ ko concevoir rek moo tax bu ñu bëggee politique ak éthique politique ak morale day xaw a compliqué ndax morale absolue idéal la te loolu je pense que religion ci diine la gën a jekk nga xam ne yow da ngaa bëgg paradis céleste ngay wut àjjana mais nga xam ni paradise terrestre la ñu bëgg ah politique dafa am moralam moral bi mooy efficacité mooy la réelle politique le réalisme l'efficacité te efficacité bi nag am na ñoo xam ni tous les moyens sont bons daf may indi ci situation li ñuy jiiñ Diagne Fada comme ni mu ko waxee ku xam Diagne Fada man approché wu ko mais am naa tout simplement euh, li ma gisee muy doxal bi mu parce que Ablaye Wade da koy yar te ci PDS lañ ko mus a xam mais bu dul Diagne Fada sax mais ku xam Macky Sall xam principe yi muy doxal ak justice sociale bi mu bëgg ak ni mu commencé doxal nga xam ni lu ñëw daf ko bëgg a leeral ba mu leer nga xam ni moom du dugg ci yaakaar naa ni daal du jënd kenn je pense que loolu mën na am nag ndax ci politique la ñu ne ah mën na am mais yaakaaruma ko ndax euh, bu ma xamul kii itam euh, Diagne Fada yaakaar naa ni ma approché moom je pense que c'est un homme droit un homme juste en tout cas ñi ko jege ñëpp loolu la ñu wax wante nag politicien ni ko euh, Ludovic waxee ah c'est dommage Kéba Mbaye ci discours inaugural am bi mu defoon université xam nga politiciens yi ñoom ñoo yàq réew mi parce que amuñu métier politique bi la ñu def métier ci la ñu bëgg a def seen teraanga et cetera et cetera xam nga bu réforme institution yi moi je pense que liñ ci gënoon a war a def mooy assemblée nationale sénat conseil économique social et environnemental ku fa siéger aussi dañ lay jox jeton de présence bu fekkee instituteur nga ñu jël sa liñ lay fay comme instituteur boole ko ak sa jeton de présence bu fekkee mësu amoon liggéey ñu jox la sa jeton de présence kese nga xam ni politique bi day nekk sacerdoce du nekk sinecure mais da ngay gis koo xam ni jàngul mënul liir turam sax ñu yóbbu ko ci benn instance muy mu romb koo xam ni agrégé la wala maîtrisard mais loolu tax dëkk bi yàqu ah, parce que ku politiqueul say mbokk sax ñoo lay jëkk a mere lu ne ngay dégg yow la la sa jàng bi di jariñ ah et puis réew boo xam ne dañ naan chance gën licence mais ça c'est la catastrophe buñ la falee ñu ne ndax mëccaat am na waaw ah. mm-hmm. bu ñu la falee li ci gën a garaaw mooy da ngay jubali cimetière yi mm-hmm. sukk ci sa bàmmeelu baay wala sa bàmmeelu yaay di ñaan di kontaan man bi biñ ma nommé proviseur mais je je suis tombé malade la veille de bi ma waree dem sama kii parce que kooku responsabilité bu mag la mais boo gisul responsabilité bi mais nga gis li nga xam ne lii avantage yi. mais moo tax nga ngay sant yàlla. mais ku ñu nommé ministre. wala yenn responsabilité yi da ngaa war a tiit. mais suñu réew yi ma euh, moo tax itam lii am di am. di am ah, ngay détourné te dara du la ci fekk. Mhm. ak yooyu. donc man mhm. je pense que Wade aussi wax na ko. Mhm. Wade. nga bëgg ko nga bañ ko c'est une bête politique mm-hmm. c'est une bête politique mm-hmm. et puis nag aussi ah def na fi lu baax def na fi lu baax de 2007 bi dévolution monarchique bi jë jibee rek nga dégg ñu naan ko bàyyi mais avant loo doon dégg bàyyi leen góor gi mu liggéey mm-hmm. bàyyi leen góor gi mu liggéey te wax dëgg yàlla je pense que ah Macky bu defee ndax itam moom moo sulli vraiment les grands projet de Wade Macky moo ko sulli bu dul woon loolu ay éléphant blanc lay doon ndax dañ ci dëggoon tànk mais bi Macky nekkee premier ministre moom moo ko eggale mais Macky bu defee comme ni Macky euh, euh, ni Ablaye Wade def réew mi dina avancé Ablaye Wade nag peut-être que mag la dafa war a xam ni nag dafa mm-hmm. Mm-hmm. di conseiller wante génnee loxoom ci wante comme niñ ko waxee bi mu génnee loxoom toog itam mm-hmm. ah dara doxatul dara doxatul ci PDS donc waa PDS nag ñoo war a fas jom. ndax itam bu lii continuer itam Wàdd day euh, xalaat ni bu dul moom dara du dox. dara du dox dara du dox parce que nag itam wax dëgg yàlla. bi fi bu Wàdd nekkul on est resté plusieurs mois. sans que rien a bouge. wax dëgg yàlla bi mu ñëwee la mbir yi. Euh, commencé euh, avancé tuuti. donc man defe naa yooyu laa bëggoon a wax. souligné en attendant ñuy dellusiwaat. Mademba Ramata Dia gis nañ ko ak uh, AFP ba président Moustapha Niass ne moom amul candidat bu yàggul nee nañ sax ma Sall mooy nekk seen candidat loolu am gis nga lim jur ci biir AFP uh, ci biir PIT sorti Amath Dansokho bi gis nga lim jur ci biir uh, digganteem ak waa APR yi loolu mel ni am na leneen luy xeeñaat waxatuma la ci biir parti yi mais ci biir coalition bi itam mel na ne ñu ngi lëngoo rek pour le moment mais peut-être ku ci nekk da nga wuti doole mais am na lu ñuy waaj nga coalition Bokk Yaakaar bi ñuy ànd dañu amoon benn objectif mooy bi ñu demee deuxième tour nan la ñuy def ba jële fi Ablaye Wade réussir noonu la loolu mais bi ñu réussir ba pare amul booloo bi war a am seen diggante leader yi du ñu réunion donc daawuñu gisante donc mënuñu waxtaan amul aussi benn programme bu leen liyee lépp dañ ko jël concentré ko ci président Macky Sall moom tamit muy dérouler parce que moom il en en tête que moom dafa war a nekk candidat boo leen seetee am na levier yu mu appuyer levier bu njëkk bi mooy fexe na ba domestiquer la société civile société civile moom presque ci réew mi figure emblématique yi ñi ëppoon yëpp yóbbu na leen bu booy toppandoo waxum làmb ji yóbbu na leen ardo mm-hmm. ñooñ bokk do mu ñëw aussi ci presse bi fexe na ba asservir presse bi li booy liir journal fi mu toll ñëpp dañ koy riitil gars yëpp doon nañu ay xalamkat dañuy riitil président Macky Sall li ci ëpp ci réew mu ñëw aussi ne bi mu njëkkee ñëw lan la def nan laay def ba neutraliser PDS ci loolu la nekk ñetti at yëpp fexe na ba Karim Wade mu jël ko tëj ko ci kaso bi ñeneen ñi aussi tiital na leen ba kenn ñimetul kii xam nga ci loolu la nekk bon fexe na ba neutraliser PDS léegi nag beneen levier bi aussi mooy démantèlement de ses alliés Moustapha xam na ne c'est un nit ku nit ku émotif la et puis ku bëgg wëlëre la yooyu def na ko président de l'Assemblée nationale léegi moom mu yaakaar ne dafa am benn dette de reconnaissance envers président Macky Sall mu ne nag léegi man Moustapha Niasse damay noyer samay ambition doy waar am nga droit en tant que être humain et leader d'un parti nga noyé sa ambition mais nag ne keneen du am ambition sëñ bi loolu dafay kéemaane loolu na gars yi nanguwuñ ko ku mel ni maali Gakou du ko nangu ku mel ni maali Guèye du ko nangu ku mel ni Goumbala nanguwuñ ko ñooñu aussi dem nañu ber seen daara boo demee aussi fu mel ni kii PS mm, dafa mel ni boo ko jàngatee dafa am ñaari PS le PS au pouvoir symbolisé par le top management qu'incarne Ousmane Tanor Dieng Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam et Abdoulaye Wilane yaa beneen côté bi dafa mel ni PS bu nekk ci wàllu opposition muy Khalifa Sall Barthélemy Diaz jeune boobu Babacar Diop ñooñ boo leen seete seen discours ak ñële dafa woro kon ñële boo leen déggee sax dafay mel ni dañoo gën a jege APR que que que PS parce que discours yi ñuy développé même bërki dem rek tam maa ngi nee neena am na lu juróom fukki at donc du wax lu mu gëmul. yàlla lay wax mais waaw yàlla waa tàgg fa Macky Sall ba wane ne moom donc ñooñu ñëpp donc ça pose problème. Mm. mais lan mooy problème bi aussi parce que parti boo gisee leader bi en général mooy même bu ko moomul ni de fact de de théoriquement. Mm-hmm. mais de facto moo ko moom. Mm-hmm. parce que boo xoolee parti bu mel ni parti socialist Ousmane Tanor Dieng mooy contrôler tous les leviers bu ñu voté woon fi mu toon doon def élection candidat boo indi fukki yoon Ousmane Tanor Dieng dina la daan fukki yoon xam lu koy war parce que ay nitam la jël teg leen foofu ay nitam ñoo am poste yi ñoo dem ci gouvernement ak leneen ak leen député yi aussi ay nitam lañu donc verrouillé na parti bi mais le seul problème mooy pour être leader comme ni ko le sociologue Weber waxee il faut se munir de deux légitimités bu njëkk bi mooy légitimité historique kooku am na ko kenn nattable ko mais beneen légitimité mooy la légitimité charismatique foofu nag mooy problème bi Tanor souffre d'une légitimité charismatique loolu moo ko dese te parti et puis boo xoolee dix décennies bi yëpp il n'a qu'enregistré il n'a qu'à mm-hmm. ay ay revers la donc il est temps nag ñu jéem a wut leneen pour foofu ku mel ni xalifa ah, ku ni xalifa mhm. Sall nit ñaa ngi koy positionné mais ba léegi aussi pour man des na parce que déterminé wugul ba léegi Bamba Fall wax na ko le maire il est temps de se déterminer pour l'intérêt du, général du partie mhm. donc yooyu yëpp bon léegi aussi par rapport ak Benno Yakk Yaakaar mhm. c'est une antité boo xam ne qui n'est pas viable alors c'est buñ ci buñ ci yàlla bàyyee yàggutul dara dina test parce que ay nit mënuñu bo mu bokk leen fu ngeen bokk leen benn fauteuil la ñëpp bëgg ci toog te fauteuil la bu doon canapé sax wala ñaari canapé ñu te dina gën a <laughs> suñu am benn fauteuil la te ah. président Macky Sall toog na te fas yéene wu na leen dama soxla beneen mandat mhm. donc dina def tout pour neutraliser leen ak yéen léegi ci wàllu mhm. kii nu mu tuddati Diagne Fada mhm. man débat boobu mënu ma ci dugg parce que c'est un débat d'accusation et de contre-accusation waaw et de contre-accusation mm-hmm. Mm-hmm. je crois que le débat mën na gën a sérieux nan gën a sérieux nan la ñuy def ba soit PDS ñu réformer ko wala soit ñu àndaat dooleel parti bi ba ku nekk gis ci sa bopp quoi. Mm-hmm. yow yaakaar nga tere di ñoo mënat na am bañ racoler le morceau. bon dina jafe dina jafe dina jafe parce que ñaari extrême la te ku mel ni Ablaye Wade. c'est un combattant pour l'éternité et puis dafa am benn illusion bu nekk ci maître Ablaye mooy il a l'illusion du triomphe éternel mhm. moom pour moom les seules batailles perdues mhm. soo celles qu'il n'a pas encore livrées parce que nee na sax crise amul à ans ba léegi moom nee na la je ne renonce pas au combat donc combat bu metti moo te nee na crise amul ci parti bi parce que li considéré comme crise mm. Ludovic Rosner euh, booy seet tey Benno Bokk Yaakaar parce que dañ ne woon gouvernons ensemble gagnons ensemble gouvernons ensemble tey ñu àgg ci di gouverner ensemble mais booy seet ci biir day mel ni ils sont égaux en droit ku nekk yaa ngi ak say morceau say teranga mais en devoir dafa mel ni tollowuñ parce que ku ci nekk boo génnee nga wax wala itam euh, yow presque dafa mel ni yëf yi bilan bi sax bu ñu ko tuddee rek ñëpp dañuy sol seen dal dal di daw mel ni lu baax nekku fa. Hmm. Euh, xam nga réew mi dafa bëri ay diplômé mais du ñu ay intellectuel du benn de diplômé taxul nga doon intellectuel te intellectuel ci comportement la. intellectuel da nga war a nangu lu ñuy wax la contradiction da nga ko war a yàkkamti sax boo jàppati yaa nekk yaa nekk ci dëgg da nga war a yàkkamti ko la contre pour nga won ko ne yaa nekk ci dëgg te moom moo nekk moom moo nekk ci tool mais man dama yaakaar ni euh, ñi fi ne tey ak xëy sax ñi fi nekkoon démb dañu nanguwul contradiction xëy na nit kuy wax te doon responsable war nga am obligation de réserve loolu kenn bañ ko war nga xam ni yaa ngi ci nguur war a wax n'importe quoi waaye nag mais sañ nga wax sa xalaat xam nga ni amat Amath Dansokho warul wax ça veut dire que kon ku bokk suñu biir daal bul wax dëgg c'est-à-dire lépp loo xam ne xëy na sax baaxul bu ko wax na yem suñu biir mais loolu trahison du peuple au peuple la xëy na boo waxee lu ñàkk teggin président wala moo wax loo xam ne teguwul fenn mais man dama yaakaar ne ku mel ni kooku ku nekk dans le daan dans la dans le pouvoir bu jugee ne le pays va mal mais tontu bi may wan ko la le faa va bien am déet nee na affaire bi doxul mooy wan ko ne affaire baa ngi dox te nga noppi mais pourquoi muy wax ba pare jox ko un scandale mais quand te gis nga politicien man moo dafay mel ni xale parce que yenn erreur lay def yoo xam ne nekkoon na ak Abdou Diouf mu wax lii ne mel ñu génne ko mu def ko la ak Ablaye Wade mhm. mais ñu nekk opposition nañu non c' est bien wax na dëgg Amath Dansokho c' est bien wax lu mu wax c' est vrai waaye comme it yaa ngi ci pouvoir bi nga ne c' bien loolu yëfu yëfu xale la parce que da ngay da ngay da gaaw fàtte alors il faut nit ñi nangu contradiction je suis d' accord que ni boo nekkee ci pouvoir bul wax lu ëpp bul wax lu on comprend quand waaye nag am na droit wax xalaatam ci réew mi man ci lu mu dégg. waxul ni Macky Sall baaxul waxul ni APR baaxul dafa ne réew mi dafa am problème nañu ko defar. la taxoon ñu fal ñu defaguñu ko. waaw mais mais yëgaguñ ci. Hmm. mais man je ne comprends pas. Hmm. mais pourquoi ku wax lu kon Macky Sall ñu war a kon man sax dañ may problème am na ku ma waxoon ne yow Macky Sall dafa la war a fay sax parce que kuy critiquer kookoo am njëriñ pas lay raay naan la li nga def baax na et cetera non. xëy da war a dégg ku lay critiquer nga set bu fekk bu fekkee ne li ma wax yenn maanaam nga jéem nga jéem a changé hmm. mais képp ku wax dara loo xam ne xaw na kii rek soo ñu tëj la wala ñu indi la coow mais c'est pas normal loolu ku ñàkkuwul boppam moo koy def man su ma nekk ci dëgg yaakaar li may def dëgg la damay continuer loolu Ablaye Wade doon def ah. dañ ko doon wax n'importe quoi mais il continue yoon ba baax na baaxul loolu la gëm day dem jusqu'au bout ñiy wax ñiy xëcc buy dem rek ndax moom jàpp nañ ne baax na mais boo amee vision jàpp ne li ngay def li nga def mais doo déglu Massamba Mademba wala nga déglu ko pour xool ndax li mu wax mën na la njëriña mën na la am njëriñ pour nga changer mais man li ñuy wax ci Amath Dansokho def ko scandale bu garaaw ministre bi wax ci alors que mu ngi yor acte acte trois boo xam ne ay problème kese la waxul ci loolu loolu moo soxol soxol réew mi na wax ci loolu y a nga jël commune bu xam ne commune commune rurale boo xam ne moo ëpp région de Thiès ci Matam nga ne moom wax commune de Dakar ñoo bokk ñoo bokk loi commune bu ëpp région de Thiès nga ne moom ak commune de Dakar wala yeneen commune ñoo bokk mais y a des problèmes xam nañ ko de ñi nekk après ñu nekk après xam nañu y' a beaucoup de problèmes. président récemment il a reconnu qu'il y a eu des difficultés au niveau de l'acte 3. précipitation dañoo bëggoon yàqamti rek pour ñu pour élection yi nekk élection acte 3 bàyyi ci erreur yu bare bare bare bare bare fu mu ne nii kenn xamul foo jëm. parce que liggéey sax mënagul tàmbali apparemment. a des problèmes. mais léegi am na ci ñoo xamante ci ay leader bokk nañ ci ay élection yu bëri présidentielle ñàkk ko. bokk ci ay législative am tuuti député ci ay atti atti atti at lu tax politiciens aussi dinañ xam liñ mënul mais kenn du xam liñ bëgg mais loolu lu koy faj yomb na élection primaire kuy candidat PDS na ko PDS wax kuy candidat AFP na ko AFP wax mais démocratie mi ngi tàmbali ci biir parti bi def leen seen élection ne kii mooy candidat te bu ñu xasee ba ne kii mooy candidat bàyyi leen ko bu dem su gañee noonu la su perte noonu la yooyu mi nag boo fekkee ne am nga ambition tey faluñu la mais bu nekk nga génn benn daal créer sa parti. d'accord loolu a coow amul. coow amul waaw ñii mën a wax ñi réew bi mhm, ñi bi ñu fi po ci biir PDS xel yëpp dañu li fi xewoon ci ay bés yi ñu génn ku génn taxawal parti euh, maru Fall sànq mu ngi ko doon wax réew mu ngi ci ay presque trois cents partis loolu nga xam ne tey pluralisme politique dafa bëgg rekk nekk néegi augmentation de parti politique wala de poste ministériel doxalin boobu aussi ndax nekk na bi gën ci espace bi alors que boo seetee courant yi bëriwuñ dara ci biir réew mi parce que ñu mën dañuy recoupé wu. waaw euh, loolu li ma ci njëkk wax la abord. Euh, c' est toujours un plaisir yooyu ñu ciy laal. Mm. c'est vrai bu ñu fi toogee tey c'est vrai je suis le coordinateur général du MJPV le mouvement pour la justice le patriotisme et la vérité mouvement mm. panafricain et panafricaniste mm. mais fi ñuy gën a insister c'est d'abord le volet consultant foofu la ñuy gën a ñëwee parce que tey bu ñu nee les partis politiques bind nañ ci yàgg na je pense c'était en 2010 si je ne me trompe maa ngi ko tuddoon pléthore de partis dañuy englouti peuple sans parti ñoom dañu tong-tong askan bi moom lañu ñu fa nekkee parce que tey je pense ci biir article maa ngi naan ku fi demoon dañu waroon créer ce que j'avais appelé en fait euh, la CIF la commission indépendante du fichier électoral boo xam ne képp ku fi bëgg am parti du ku bëgg am parce que ñi am ba pare itam du point de vue des idées il ne pèse absolument rien ne serait-ce que le débat contradictoire ne serait que pour en fait euh, commencer encore euh, euh, le débat tout simplement mm -hmm. c'est des gens qui ñaar boo leen tey comme question yu ñu jàkkaarlool fi mu toll nii disons l'envoi des soldats au Yémen koo ci toogaloon nii sur de question des questions géopolitiques et géostratégiques xamuñ ci dara ñu boo leen joxee réew itam digal ko la ñuy def buñ ca bokkee yàq ko la ñuy ndax ba ñuy wax Benno Bokk Yaakaar <coughs> ne woon naa leen am na erreur bi fu mu njëkkee depuis M23 ma leen problème a ngi am et euh, c'est le moment aussi saluer mes amis de Y'en a marre man leen ci pax ngeen di jëm je vous ai entendu dire que vous êtes apolitique vous allez commettre une erreur historique parce que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon si vous êtes là ngeen ne alors nangam ak nangam au finish dès l'instant que vous dites tout sauf Wade vous avez choisi un parti si vous dites que vous êtes apolitique apolitique n'existe pas ça n'existe que dans le dictionnaire parce que mis devant le fait accompli vous serez dans l'obligation de choisir leen sa M23 leen def la leen fagocité yàqal leen li ngeen di liggéey buñ ñëwoon léegi ñu bëgg danaa ñëw ci dans soxla léegi man lan buñ jógee foofu ñu ñëw Benno Bokk Yaakaar man leen man yaakaar jooju dama ko gëmut nga xam lu tax man ñaari phase laa ci gëm Benno Bokk Yàqal Wàdd Benno Bokk Yàqal Macky c'est aussi simple que ça sans nag parce que la somme des commence encore l'intérêt commun n'est pas forcément la somme des des intérêts individuels lu tax mu wax la loolu ñoom bokk nu fa nu jëm programme boolewuleen xamxam xam boolewu leen dara boolewu leen lu dul bëgg a jël alalu askan bi pour si on veut dire les choses telles qu'elles sont parce que tey je suis désolé et navré même dama am na article mu bind récemment son excellence tendons vers l'excellence maa ngi ci naan euh, le blocage de la politique ou vision du président Macky Sall demeure fondamental on peut pas faire la révolution avec des réactionnaires on ne peut non plus faire du vrai avec du faux c'est pas possible c'est pas possible da pour bëgg ci ñëwaat léegi boo ma tuddee léegi xam nga Malick Gakou la ñu wax au niveau de l'AFP foofu la ñuy tirer le chapeau un peu à Ablaye Wade parce que au moins def na même bu bu ko nit ñi woowee similaire je sais pas en tout cas euh, Badiane Fadla jusqu'ici n'a pas été absent à son procès mais Niass bi mbir mi xewee au niveau de fp dafa taxaw mu ne alors les terme qu'il a utilisés je mënuma leen utiliser fii ne serait-ce que par courtoisie mm-hmm. parce que même nit ñi nga xam ne yow nit ñi di woo ay nit di ànd ak ay nit yow ngay woowe nit mbooloo topp la nga wëlbatiku ña la topp nga am noo leen tuddee war ngaa xoolal sa bopp man da bu may dox am na noo xam boo ko mel doo ànd ak man du ma ànd ak yow dox man rek moom ma gënal donc bu ñu ñëwee ñu ne la AFP mu fa Malick Gakou Malick ça c'est un combat perdu d'avance parce que li ma doon wax momentum Malick Gakou ce qui devait refuser d'abord que Aliou Sall soit maire de Guédiawaye Aliou Sall est moom frère de Fatick yéene naa ko ko yéene naa ko sax lépp loolu bu bëggee nekk s'il est le meilleur de notre génération il n'a qu'à être président moi chan <laughs> c'est pas mon problème ça me yaa ngi dégg mais munuma mënuma comprendre Malick Gakou ak verve bi mu amoon au niveau de Guédiawaye pour quelles qu'en soient raison raisons noppil nga noppi nga ne teg Aliou Sall ñëw jël na affaire bi y a plus d'enjeu noppil doota dem mu Waye Niass a raison aussi quelque part parce que am na loo xam ne tey mënoo ma jàngal ba mu mën a bëre bu ma mëtee la mu war a doon am na décision yoo maa koy jëlal sama bopp moom mooy li wér loolu dama ko bind ci article bu ma may wax léegi bu ma publié en 2012 que j'ai politique et réelle politique choix dynamique ci biir loolu ma jox la ci extrait maa ngi ci naan pendant que Moustapha Niass chavire le navire de l'alliance des forces du progrès dans l'océan de la paix mhm. Ousmane Tanor crucifie le parti socialiste en refusant de céder la place à son successeur naturel Khalifa Sall Khalifa Sall aussi momentum moo ko dal ah yàlla xam la muy def mais je le vois pas en xëy na bu nu padam padamam ba dem 2019 et je je pense pas que Macky dina def erreur boobu xam nga lu tax. ah Farba Senghor nee na ci liñ sant euh, Fada mooy mu faagagal PDS bu sottee ci la ñuy def élection 2017 bu sottewul ñu jàll 2019. ñu <laughs> jàll de ñu jàll 2017 <laughs> déjà xam nga c'est ça quelque part aussi. Euh, euh, le ministre Farba Senghor ku ma estimé la ndax au moins moom li mu gëm da koy wax. il n'est pas faux il dit ce qu'il pense. quelque part on peut se poser des questions s'il pense ce qu'il dit mais en tout cas il dit ce qu'il pense donc bu loolu amee mu wax loolu de doo seet déjà nañu xam ne léegi bu ñuy def élection kan la ñuy defal élection ñun ñoo fi wax démocratie man leen Sénégal dañuy bàkkoo démocratie mais man dama bëgg ñu utiliser le terme qu'il faut je le dis je le dis souvent à mes étudiants man leen bu ñu mënta ñàkk a wax démocratie nañu wax démocratie tertiaire ndax démocratie demos kratos la mm-hmm. pouvoir du peuple par pour le peuple. le pouvoir par le peuple yow bu ñu la falee jeex na ce que j'ai appris en tout cas en politique haute définition aux États-Unis mooy tey Obama am na loo xam ne bu ko defoon mais on le demain on le met dehors il va rentrer chez lui Chicago parce que waru ko def et le peuple am na pouvoir jëlee ko fa mën na ko ca sanctionner kii mu ngi koy wax léegi ne député yi bu ñu ko nee mun a looy loo sa liggéey tàccu Macky Sall wala tàccu mais effectivement parce que peuple bi tegu ko fa bu jàppee ne moo ko fa teg ko neex chef de parti ba ka bind liste ba moo ko fa teg ndax bu ko neexoon tey le président Macky Sall bu ko neexoon élection yi ma doon député kenn mënu ci dara day ne alors Pape Latir laay def tête de liste lu ci waaye man foo ma juddoo buñ ma wotalee buñ ma wotalul itam da ngay dem ndax boo demul ci bii dem ci bële et je pense ci biir loolu en parlant d'efficacité posé naa ko fii man leen comment poton on de quelqu'un un ministre de la République sur la seule et unique base d'un bétail politique c'est pas sérieux de Diakhao taxaw diggante Salmon Faye ak Mad Mad buñ ma falee sin lu war la keneen ku juddoo sin yow nga juddoo fa buñ la fa lu war la ndax fa nga bokk keneen ak keneen noonu waaye nag pour moi la fonction de ministre doit être le couronnement d'une carrière professionnelle et intellectuelle sinon académique bien remplie mais loolu lépp amul donc bu ñu ñëwee ci loolu ñu dellu soit un peu ce que mon père pour qui j'ai beaucoup d'estime le président Amath Dansokho dafa bokk ci en fait euh, l'une des rares personnalités politiques yoo xam ne bu ma neexoon ma jógee fii léegi dem këram euh, te la ma jàng ci moom bi ko sëñ Fall di wax léegi dévolution monarchique damay toog parce que en 2000 la comprendre il y avait pas de développement monarchique c'est-à-dire c'était un plan politique c'est en 2000 la toog avec le président Amath Dansokho mu wax ma fa ab Abdoulaye di daanoo ak lay xew à travers son fils euh, Karim Wade boobu kenn xam ba mu ma koy wax daf ma ne est-ce que xam nga Karim Wade ma ne ko déedéet je ne connais que de mu tegal ma lam ca demee moo tax ba ñu yegsee ba ma fi ñëwee ba ma duggee présidence moom laa fa njëkk a seete donc kooku bu mel noonu bu ñëwee mu a la le pays en danger. le pays en danger boo koy dégg man damay jàpp na on a dépasé le stade même du Y'en a marre personnellement je suis arrivé au stade de ras bol parce que nit les gens sont fatigués quand même quoi qu'on puisse dire bu fekkee on veut appeler le chat le chat le pays est en danger mais c'est plus qu'en danger pour moi c'est même un euphémisme pourquoi bàyyil mu ko parce que ñi nga xam ne nee nañu ñoo koy tontu mais quand même ils n'ont même pas la carrure quand même il faut être sérieux ils n'ont ils ne sont pour ne pas dire les interlocuteurs en tout cas l'interlocuteur du président Amadou Dansokho loolu Macky Sall peut le président Macky moo koy mën a apprécier bu ñu la ne le pays est en danger man approche intellectuelle bi laay njëkk ande mooy d'abord nañu wax danger bi d'abord il faut définir la nature du danger te définir ñu ko dañoo tëb rek di wax bu loolu jàllee dou vient le danger le danger moo wax la ko benn affaire bu ndaw bu ma la ci wax euh, je rappelle le, euh, le procès Karim bu Nations Unies insister ba boole ñu ne alors à détention arbitraire nangam sangam est-ce que xam nga liy préserver d'abord la démocratie sénégalaise jusqu'ici li tax amuñu coup d'état c'est parce que aujourd'hui ku am xam-xam ci wàllu woowu xam nga ne si par hasard quelqu'un s'aventurait à démettre tout simplement le président Macky Sall demain matin le Conseil de sécurité des Nations Unies allait le remettre au pouvoir mais mais j'insiste bien S'ils refusent l'ordonnance de l'ONU, ce ne sera plus le cas. C'est pour cela le pays est en danger bien sûr parce que c'est une boo xam ne bu ma doon ñoom damay laajte mais daanaka boo jëlee ay nit ñoo xam ne daanaka ndax duma ma ñemewuma utiliser yaruñu waaye mm-hmm. nga yar leen ci xam-xam ba nuy xam ba bu bala nga toj gémmiñu Samba xam la muy wëlis mm-hmm. ama dans ce n'est pas n'importe qui ba mu ko fi waxee ci du Diouf ba nu doxee ba mu yàgg jox nañ ko dëgg ba mu ko waxee ci abla laawaat itam ba mu doxee ba mu yàgg ba ñuy wax waxi xaalis ak nangam gis nga li mu jur la cee dëgg ak la ci du dëgg gis nga li mu jur bu dee tey aussi dafa wax loolu ci jamono le président Macky Sall bu ma doon moom dama koy woo ne ko li nga wax foo ko teg te effectivement ci biir article boobu maa ngi wax ne euh, comment dire encore euh, maa ngi ci naan si le Sénégal ne marche à plein pied de 1960 à nos jours c'est parce que tout simplement on pratique exclusivement le culte de la médiocrité et du laxisme sur la seule et unique base de politique exclusive et non inclusive des ressources humaines de qualité et de conviction dont dispose ce pays ci biir loolu lay wax ne le président Macky Sall n'est ni plus ni moins que le président du Benno Bokk Yaakaar au lieu d'être le président de la République du Sénégal et père de la nation mm-hmm. maanaam bi ñu koy dégg mooy bu sénégalais yi ne dëkk bi doxul ñuy couper nangam mm-hmm. ñoom du leen yëngal mais il suffit qu'un membre du PDS euh, euh, commence encore du Benno Bokk Yaakaar mel ne alors la République tremble ça pose problème parce que ñi ñu war a njëkk a pour man de bu doon man lii ñuy wax nii nii nii mën na maa ñàkk a yëngal pour autant mais boo rombee ci àll bi Macky Sall qui a le mérite de fair les plus de 4000 villages dans ce pays je pense kenn waru ko gën a xam réew mi urgence bu amee la ñuy wax ca fungali mi ca àll ba je pense loolu ko war a di gën a yëngal ne la mais le président Amath Dansokho pour daane la ci loolu mm-hmm. il n'est pas n'importe qui mm-hmm. li muy wax lu mu xam la ñoom bu ñu xamul nanu laajte te noppi ndax tey bu Macky yàquloo ñoom ñoo ko yàqal parce que jël nañu le cas de Fatick est là. Mm-hmm. à Fatick marche. pour dire les choses telles qu'elles sont. ñun ñi fay dem di gis di dajeeg booy mais rien ne marche. Mm-hmm. parce que mm-hmm. le vent de l'espoir ne souffle plus. et il est temps que ça souffle. ça souffle normalement soxna Awa Diop Ndiaye dellu soit na ci plateau bi xam naa internautes yi war nañoo participer poser ay questions. ñu dégluwaale ku ci nekk fa nga capté pour ñu bañ a perdre fil bi bu ko defee ñu tontuwaale ci biir bu fekkee jotuñ ko tontu ba noppi ñu mën cee relancer waat débat bi soxna Awa Awa Diop Ndiaye. waaw Ousmane mu mel ni euh, internautes yi politique daf leen soxal saa su question politique jugee rek. Mhm. ñëppay euh, màbbandoo wutali li nga xam bi mhm. question yi bëri waaye ñu segg rek. Mhm. Euh, dañuy tàmbale ak Ahmadou Bamba saw mu ne pour le cas de Fada c'est l'exemple parfait du pervers narcissique l'agresseur qui se fait passer pour la victime. Maintenant, sa méthode a été inélégante et pernicieuse. Cependant, la démocratie au sein des partis politiques est presque inexistante au regard du mode de fonctionnement des partis. Talif Dia moom itam nee na Fada Ndaka prendre ses responsabilités et créer son parti s'il pense qu'il est lourd politiquement. Bamba Touba mu la démocratie ne sera pas facile dans les partis comme au PDS. c'est Maître Watt ki finance à l'AFP c'est Moustapha Niass Rewmi Idrissa Seck Macky finance son parti du mësa am démocratie et c'est normal Cheikh Cissé mu ne mais Fada dafa taxaw temm pour tas PDS ndax moom xam na bu baax jafe-jafe yi PDS di dund ci trois ans yi seen kàngam yépp ñu ngi ci kaso bi ñuy xeex loolu ñuy yee beneen fitna kii Papa Boy nee na le PDS c'est comme un tarixa on n'aime que Abdoulaye Wade et personne d'autre Celui qui se croit puissant n'a qu'à quitter pour voir s'il est aimé par les militants grâce à Wade ou à leur mérite. Maître Wade sait que s'il quitte son poste de secrétaire général, le parti va se dissoudre. Donc nous, on veut qu'il reste jusqu'après les prochaines élections. Euh, Modou Taïf Samb mu ne beaucoup de respect à Diagne Fada mais ce n'est pas le moment de faire des réformes. L'intérêt du parti, c'est de se réunir autour de Wade. Yoro Fall mu ne le PDS n'est démocratique que de nom Maître Wade est l'alpha et l'oméga du parti Baïdy Diène Samb le mot démocratie est très lourd pour être remorqué par nos partis politiques il n'y a pas de démocratie les leaders font tout pour avoir le contrôle avec leurs hommes de confiance quitte à sacrifier les plus méritants Serigne Cheikh Wade mu je suis un inconditionnel de Wade mais j'ai mal La structuration du parti est incontournable car il faut des hommes neufs et représentatifs dans chaque localité. Mais ce que je peux demander à Fada, c'est d'avoir un peu de discipline de parti. Il est aujourd'hui euh, celui qui peut succéder à Ouad comme secrétaire général. defe naa lii mooy li ñu jot a segg Ousmane. Mhm. ci euh, internet bi ne question yi bëri na lool. Mhm. waaye li ci ëpp luy revenir daal ñu ngi wax ci kaaw ki nga xamante ni moo di Modou Diagne Fada ak wàllu démocratie ci biir parti politique yu bëri mhm. nañu ne. ki nga xamante moo fa nekk njiit rek mooy buur gummi rawatina soo ciy dugal sa koppar. ñu ngi lay gërëm di la sant ajaratu Awa Diop Ndiaye kon ñu ngi noonu ak internet yi relancé débat bi Marouba Fall ci côté boobu nga xam ne. mën na ko am ci démocratie boobu nga xam ñu ngi koy sakku ci parti yi du tey yàgg na mais dafa mel ni mbir mi dafa gën a tar ci jamono yi ñuy dund. waaw boo dégloo sax awa xaw ma. awa waaw soxna si li mu ñu andil dafa dañoo d'accord ci li ñu fi wax lépp. mooy démocratie jafe na ci partie politique yi ndax ni ñu tëddee moo tax ndax ki nga xam ni moo ko jiitee moo ko moom. ndax moo ciy def alalam moo ciy def xalaatam moo mooy teg nit ñi moo leen di samp moo leen di simpi kon te absence de démocratie boobu moo tax sax tolof tolof yi ñu am yépp ñu gis ko ndax bu ñu demee ba gisatoo sa bopp ci parti bi da ngay transhumé li ñuy def transhumance wala nga créer sa parti comme ni ko Souleymane Ndéné defee gàkku def ko donc kooku duñ ci euh, xuus lu bari donc léegi euh, kaaw danso ko man laa bëggoon a gën a insister mhm. euh, parce que moom mag la te aussi ci parti bu am doole la jóge ndax man yaakaar na ni bu ñu wax ay parti politique vraiment man ñett laa si gis yoo xam ni ay parti yu dëgër la ndax dañu am ay histoire fondement yu solide mooy PIT LD AJ parce que nit ñu dëgër parce que ay intellectuels ñoo fa ne du ñu ay partie de masse parti de masse yi mm-hmm. nag les c'est le PS le PDS mm-hmm. et cetera mais ministres yi ñu am ci partie yooyu yëpp gis nga ils ont fait des résultat ndax vraiment ñu dëggu la euh, éthique dañ koo am mais moo tax itam euh, du ñu am euh, électorat bu bu yaatu mm-hmm. comme Cheikh Anta Diop le grand savant xam nga bu duggee ci politique peut-être amul woon tribune bu mu waxee ah te bi bëggoon na ko euh, waa Sénégal jëriñoo ko moo tax dama koy citer am na ci article bu l'intellectuel face à la politique mhm. Cheikh Anta Diop Madior Diouf Ablaye Elimane Kane ak ñu Ibader bi sax ci la bokk mhm. ñu waruñu def politique dañ leen war a jox ay moyens ñu mhm. liggéeyal réew mi parce que boo demee ci dëkk yu mag yi comme France mais un recteur d'université du dem di buuxante ak ay politiciens demal États-Unis les gens de la NASA là mais soxlawuñu ci mais fii boo amee tuuti xam-xam ñu la politigal ndax kee fa mu toog yaa ko ko gën a yelloo alors que politicien c'est un animateur il représente seulement euh, ay post poste de représentation dañuy waxal nit ñi toogal leen fa mais ñiy doxal réew mi mooy ñu ñu gën a sofental cordonnier bi menuisier bi maçon bi bu fàlloo ak jàngale dafa amul réew mi du dox mais suñu réew yi looloo tax dafay tar tardé ndax ñooñu dañ leen a mayul benn benn benn cër mhm. Dansokho comme ni ni ko Pape Latir waxee mhm. ah mag la ah mag nag ah la muy wax lépp peut-être gone du ko mën a xam mais comme dafa ànd ak yéen même bu juumee ndax comme ni ma ko waxee léegi man yaakaar naa ni nag bu fekkee yow mën ngaa wax ak président directement yaa ngi ca conseil de ministre ndax itam dañu nii il faut laver la linge sale en famille bu amee loo xam ne lii vraiment ñor na ko te mu yaakaar ni day yàq réew mi wala réew mi doxul wala li nga xam ne askan wi yaakaar nañ ko ah yaa seen yaakaar ngi bëgg a yàqeeku war na ci wax ak Macky wala mu waxtaan si biir conseil wante ak la muy wax nag comme en tant que citoyen citoyen la aussi hmm. mais nag comme ministre d'État la nag am na droit de réserve il y l'obligation de réserve hmm. mais yow am nga expérience ci conseil président yooyu yow mos nga ko fay dund est dina yombe noonu non man sax mosuma nekk conseiller hmm. président comme ni ma waxee conseiller ministre rek laa woon te comme ni ma la wax conseiller muuma kenn ndax jox ñu ma sax bureau ndax samay xalaat peut cadrewul ak la doon la ñu ko bëggee hmm. ndax man bu may wax Sénégal laay waxal waxul ma ay France ma kenn li ma yaakaar ni moo baax ci réew mi loolu laay wax donc moo tax bureau sax joxuñu ma ko finalement damaa toogoon suma kër rek toog hmm. waaw conseil technique bu hmm. dul seetee euh, bu ñu seetul mu seet boppam <laughs> <laughs> seet lu mu def <laughs> donc euh, pour danse ko nañu wax ci li mu wax le pays va mën nañ ko jàngate nu ne ndax itam réew mi kañ lañ ko jox Macky Sall 2012 pour ñaata at cinq ans wala sept léegi man dama ci doon waxtaan ak benn mag mu ni ma waaw boo yóbboo sa xaftaan ca sa tissu ca tailleur ba ni ko ñawal ma lii mu ni la ci juróomi fan wala juróom-ñaari fan laa laa la koy ñawal. nga jël nga nekk ba ñetti fan yee nga ñëw gis mu dagg ko nga di ko yow xamoo dara yaa ngi yàq sama yére ah. loolu doy na waar doo xaar ba juróomi at yi mat juróomi fan yi mat wala juróom-ñaari fan yi nga xool li mu def ba xam baax na wala déet waaw donc euh, paysans yi dañu am logique boo xam ne bi c'est c'est moi je trouve que ils sont beaucoup plus euh, réalistes que que les intellectuels parce que fii aussi amuñu opposition opposition yi mooy ôte toi que je m'y dañooy yàkkamti ndax li ñuy critiquer am Macky par exemple si mandat bi sept mais Macky lan la dig dige woon digge woon na ba dig xale yi jëkkër ministre yi du bari na ñaata ministre la waxoon ah ñoom ñu ñu def ci ministre yi te muy nekk pléthore de ministre du ñu démissionné mm-hmm. xam aussi dañu wax rek bañ a sànni xeer comme ça ak di te am na mag bu wax bu baax muy sëñ Abdoulaat bu ma juum nee na ah ku bëgg a subbi mbubb mu màggat daloo mbubb mu yees te ragal yaramu neen mhm. doo daloo diggante donc futeeku mhm. ak soluwaat yaramu neen nga fa defe naa ci foofu lañu ñu mhm. mag yi mi ngi rafistole di góorgóorlu man vraiment du ma ni c'est à cent pour cent mais mi ngi góorgóorlu di teg ay affaire am ndànk ndànk nañ ko may nag mu mm. eggale je crois que mm. looloo tam euh, lu baax la mais bu ñu nee le pays va man mm. mën nañ ko nangu ndax euh, fenn regarde Hollande avec ses problème daanaka Sarkozy itam loolu lay wax xam kon kon addina bi yëpp moo nekk en crise en crise d'accord waaw nañu leen góorgóorlu mais léegi boo ko constaté analyser de de façon objective les problèmes d'accord parce que euh, politiciens yi aussi seen erreur mooy dañoo bëgg a remplacer yàlla Macky Sall mais kan moo ko amul doole peuple bi ko fal moo ko may doole la preuve Ablaye Wade mi doon def di dindi tey mënul def dara bi ñu xoolee ba xam ni doyatuñu dindi nañ ko d'accord Macky aussi ah euh, yaakaar bi muy yee. bu fekkee ni aussi tontuwu ci ba nit ñi dem 2017 wala 2019. Mm-hmm. mais dañ koy teggi rek. te yaakaar naa ni mi mi ngi xam na loolu. d'accord ma dem ba Ramata Dia parce que. Dansokho mm. dafa am benn élément boo xam ne peut-être dangeen ko perdre depuis mooy dafa def benn sorti ci observateur mm. samedi lundi mu defaat beneen sortie mm-hmm. Mm-hmm. mais pour jéem a repréciser sa pensée. maanaam xaw a dellu ginnaaw ci li mu waxoon. yaa ngi doon wax ne à quel jour jour Amath Dansokho waaw hmm. donc dafa mel ni. li mu waxoon xaw na ko regretter. qu'est-ce qui a pu en temps ba ba mu regretter ko wala ndax daf bañ a gêner le président de la République par rapport à ça. Hmm. donc yooyu c'est des questionnements. léegi li am solo mooy que politique li ko tax a jóg mooy construire la cité. bu ñu demee nag ba seetlu na ne li ñuy li ci ëpp du pour construire la cité. c'est pour construire un mangeoire day doy waar li ci ëpp nu ñuy fexe ba nu ñu dundee li ñuy wutee donc day pose problème moo tax gis nga yi doyen bi di wax nii sax ay waa gauche beeg dañoo kii mais boo xoolee fi mu toll nii amul gauche amul droite idéologie taj waaw lépp lépp daal li leen intéressé mooy fexe ba ba gato bi ñu bokk ñu fexe ba ba li ci saf suukar daal du du mu du ump mm-hmm. donc bu loolu wéyee puis Idrissa Seck dafay sorti benn communique la def waa APR ñëpp jóg communiqué rek la def de waxuma conférence de presse communiqué ñëpp jóg dal ci kawam ku nekk mel ni réew mi dafa yëngu dafa am lu xaw lu fi xaw wala tremblement de terre ñu tegaat ci ay fan Amath Dansokho def sorti bi mu mujjee bi mu bëggoon bi mu mel ni daf ci bëgg a génn mhm. waaw mais def na sorti mais daf ci bëggoon génn après mhm. mais bi mu ko defee aussi ku nekk jóg dal ci kawam dal ci kawam mel ni réew mi léegi dafa am pensée unique boo nekkee ci opposition am da ngay nangu démocratie débat contradictoire ak yooyu mais boo ñëwee pouvoir doo bëgg yow yaa yow yaa xam yaa mën loo wax noonu la keneen amul xalaat te day mel ni benn pensée unique la ñu bëgg a instaurer ci nit ñi mhm. ci te loolu baaxul ci am réew la démocratie c'est la contradiction de la contradiction surgit la lumière mhm. il faut nit ñi di waxtaan di diisoo ku nekk di jox sa xalaat après na ñu seet li ci am solo ñu jariñoo ko pour askan wi mhm. léegi si loolu sax dafa am sama benn sama sama xel dafa dem ci Voltaire lu muy faral di mm-hmm. nee na il faudra toujours sa battre pour que la pensée de l'autre puisse pour puisse exister mm-hmm. même yow boo xalaatuloon na xeex ba beneen pensée donc pour pour pour pour woon leen ne nag mm-hmm. pensée diversifiée dafa baax ci am réew loolu day faire day ce que avancement quoi. pour pour mhm. pour ñëpp quoi. parce que nu ñu ko waxee Hugo aussi mu ngi naan pour aider mon peuple je me penche vers lui le reste vient après. waaw déglu askan wi aussi yaakaar na am na solo. parce que day mel ni le gestion du pouvoir. Mhm. doyen mi ngi wax dañ dafa très tôt trois ans ñuy juger Macky Sall mhm. mais man je crois que yow yaa fëgg sa dënn ne gars yi da ngeen a jaaxle ñi ñi fi yor mënuñu man maa mun jox leen ma réew mi bu la ko joxee wax dëgg yàlla dafa am lu askanu yaakaar ci yow. mais problème bi gën a mag fi mu toll nii ñu ngi koy dund fan yi mooy problème électricité ak problème mu ndox bien vrai wàññeeku na. la rax ci doy ñu ñëwaat encore yokku ndox mi njëgu ndox mi dañ ko yokk ak njëgu courant bi donc dañ pouvoir d'achat góorgóorlu bi ñu ngi koy gën a ñu ngi koy gën poche góorgóorlu bi ñu ngi koy gën a bët donc tout ça ça pose de problèmes te pour nga xam ne réew mi fi mu toll nii dund bi metti na mhm. wala nit ñi li ñuy dund metti na teru sori rombal marché wala nga waxtaan ak ay nit wala grand place yooyu di nga xam nit ñi fu ñu toll ak li leen na donc li war fa fi mu toll nii mooy en tant que gérant tenant du pouvoir nañu fexe ba askan wi coono yi gën a wàññeeku ñu bu ñu bëggee faj seen doom mu yom da bien vrai couverture médical universelle am na mais ba léegi des na bu ñu bëggee transport bi aussi bon gis naa ay jéego mais ba aussi ñu bu noonu yomb ci nit ñi dina ba ak dund wàcc prix donc yooyu yëpp partie de la demande sociale boobu la mm. ñu fexe ba daan ko quoi mm. loolu daal mooy sama ma dem baramata euh, Ludovic Rosner euh, parce que bu Amath Dansokho du wax ne aussi le pays est danger comme ni ko Marou ba waxee Pape wax ko mën nañ ko jàng ci ay façon yu bëri boo gisee aussi révolte bi niñ ko mën a woowee ci PDS bi yoon mu ngi jógee ci institution assemblée nationale nga xam ne tey APR na ku fa majorité amu fa majorité nga xam ne ay groupe parlementaire ñoo fa nekk te kii moo dirige groupe parlementaire opposition est-ce que ci fan woowu aussi la fa mën a xew mënul dem aussi ba dugg ci biir assemblée bi nga xamante ni bu ñu wax peuple bi nekk maître de la république foofu moo tax ñu koy wax waaw mën na nekk te xam nga li doy war ci assemblée mooy le parti au pouvoir amu fa majorité xam naa euh, ñoom sax luy Amath Dansokho di wax ak keneen ak keneen sax parce que LD sax daan na ah, a des problèmes mm-hmm. xam naa bu ñu amoon majorité dàq nañ leen bu yàgg waaye boo leen dàq ñu coaliser ak PDS majorité yaay minoritaire kon il faut ñu naxante parce que quand bu ñu fàtte ni au premier tour Abdoulaye moo jiitu moo jiitu woon ñu ñëw alors daaneel ko mais quand même 35 pour cent sa fekk que un Sénégalais sur trois am na ànd nañ ak moom doyul waaye tuutiwul kon bu ñu deful attention te gis nga politicien Euh, am na suñu baax waaye man dara mun ma bett ci ñoom ndax gis naa ko xam ne ànd naa Ablaye Wade am teranga bu ne ci moom mu jóge fa dem APR Ablaye Wade wàcc mun na ko sàcckatu otom di ko rëbb ne sàcc nga koo xam ne mën na ko bàyyi mata la maam amoo benn preuve nga ne sàcc la xam nga loolu ça veut que ni ñoom amuñu idéologie gëmuñu idée lu ñu gëm mooy nit ki la ñu gëm dañu koy topp ngir suñu intérêt bu intérêt bi jeexee ñu bal fa c'est ça le problème même les militants militants boo na ko eh lan mooy programme PDS ñu bëri xamuñu ko lan mooy programme APR ñu bari xamuñu ko kon ñoom nit ki moo leen intéressé ak intérêt bu ñu mën a am ci moom mais loolu du du politique doy na waar dañuy dem ba campagne sax léegi nit ñi du ñu wax sax ci programme bi en tant que tel lu wax mooy tëgg tama alors jox ko t-shirt et cetera jël ay nit mel ni ay xar ko leen ci cadre leen ñuy topp nit ñi sans réfléchir mais c'est ça kon nit ñi xamuñu lan mooy njëriñu politique leen fa bàyyi mooy intérêt. waxoon naa fi ni boo demee ci mairie nga taxaw ci bunt bi di matin au soir ngay xool kuy dugg ak kuy génn ñaari façon nga fay fekk kuy demande kuy ut état civil ak kuy ut secours sama doom day ngénte sama papa feebar na et cetera et kon ñoom sax jàpp ñu sax ni l'institution communal mën na leen amal njëriñ na jàpp ni fii bërëb politique la comme da ngeen di falu ñëw leen campagne jox la ñu ñu fal leen bu ngeen faloo daal def seen politique ba c'est un problème y' a problème te les partis politiques dañu dul former les militants li ñuy wax abrutir pour première ñi dafa am ñoo xam ne sawaruñu pour peuple bi yeewu dañ bàyyi noonu rek pour mun leen noot pour mun leen nax mais loolu mënut a continuer bu fekkee ne nag nit jóg na di wax ci réew mi dañ ko war a déglu muy ministre muy n'importe dañ ko war a déglu xam waxoon naa sànq ne moom waxul pour critiquer Macky Sall waxul pour critiquer APR waxul pour critiquer moom ci réew mi la wax dañ ko a déglu xëy na nag. dans danger je ne sais pas ndax on est en danger. Mm -hmm. mais y a des problèmes. kenn wax ni président Macky Sall def fi dara man d'accord ba ci loolu. Mhm. am na lu mu def quand même. ah mhm. am na aussi lu des. gestion réew mi aussi y a des problèmes. Mhm. te am na ay signes yu bëri lay won ni justice bi nu muy doxee doy na waar. xoolal kaaw seen beccu cuun jàpp nañ ko gën a ne ko nag léegi bul def benn manifestation waaye barki dem mu ñaay bi mu ne man léegi bokk ma PDS léegi mi ngi manifester mais ça c'est c'est dafa doy waar ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day wane proximité diggante justice ak le pouvoir mm-hmm. alors que ñoom dañu waxoon bonne gouvernance gouvernance vertueuse mais toujours da ngay gis ni lépp loo xam ne arrangé la pouvoir noonu la noonu la ñuy def loolu dafa doy waar procès Karim Wade ngi nii ku ne wax na wax nañu ba sonn lii renversement charge la preuve kenn mësu koo gis ci àdduna sàcc nga kaay wadde doo sàcc loolu c'est contre le droit mm-hmm. mais dëgër nañ bopp ba Nations Unies ñoo wax li léegi qu'est-ce moo tax ma ne man accuse ma politicien waaye dara mënu ma bett ci ñoom d'accord ndax lu ne gis nañ ko fi mm-hmm. waxuma la baax na waxoon baaxul mais vraiment lu ne gis nañ ko fi mm-hmm. te loolu peuple bi moo war a jóg man su ma soxla da ne peuple sénégalais yéen bu ngeen ànd ak politicien xam ni workat la baneen ko weccu leen ko ndax citoyen aussi dafa war a am mm-hmm. citoyen moo war a sanctionner les hommes politiques ku jub dañ ko topp xam ne kii am na lu mu gëm waaye ku topp euh, euh, tel nit nga dem ba si yàgg ñu folli la nga changé comportement changé waxin ki nga doon ki nga doon tàgg sàgg ko mais loolu dafa doy waar mais ñi koy ñiy topp nit yooyu la ñu war a waxal. est-ce que peuple bi sax amul ci ñu ci encouragé ñooñu ci loolu parce que. waaw mais ñu bëri c'est ça. Mhm. dañuy koy wax sax. Mhm. ba tey ñu ngi corrompre nit ñi dañ jox xaalis ñuy jël mhm. mais vraiment bu ñu jëlee ku leen neex votel mais ba tey ñoo leen di jox te ñu ngi koy gis. chaque campagne électorale c'est la même chose li bere doon def moom la APR def ay militants dugal leen may mel ay xar ci biir kaar ñu wàccee leen ñu tàccu fecc après ñibbi mais ça loolu loolu nañ changer aussi euh, am benn un problème Papa Latir Faye ci avenir parti politique yooyu nga xam ne tey bu ci nekk yaa ngi toog ci goutte gu rëy parce que euh, coow lii mu ngi ci biir PDS mais ñàkkul aussi ci biir PS nga xam ne tey tudd nañ fa ay dauphin secret tudd nañ fa ay ñoo xam ne ay candidats potentiels te tey jii ba léegi dara leeragu ci boo doon natt avenir u lëngoo gi fan la war a mujjee waaw euh, man fi may njëkk a xool d'abord donc la faux casquette bi ma war a sol dëgg-dëgg en tant que panafricain panafricain si ñëw parce que je pense ce pays en fait ce qui est déplorable ñun ñii foo nga nekk jàmbaar dëgg nga bëgg parce que des fois quand même bëgg rek buub say bagage dem waaye boo ko defee itam war askan wi ndax fi ma koy waxee mooy tey en 2015 mais on devait parler du paradigme africain ñoom am man gisuma ci parti bu am un projet africain même le président Abdoulaye Wade mi nga xam ne il est panafricain sinon panafricaniste mais quand je l'entends en tout cas ça me désole bu ma déggee mu a la famille libérale ça me désole parce que bu ma déggee mu a j'ai formé j'ai créé des milliardaires ça me fait mal j'aurais bien aimé entendre Abdoulaye Wade que j'estime bien dire que j'ai formé des panafricains et des panafricanistes parce que ñii xam nga ne coow li coow li coow li Euh, le salut du peuple du jaare ci ñoom mënul nekk parce que gëmunu ko nam nit lu gàll lu mu nampul mënul nekk ndax bu fekkee ne da nga ñëw d'ores et déjà xam nga boo xoolee comme mag ñi fi nekkoon dama lay jox benn exemple ku mel nii sëñ Cheikh Gaynde bi ñu ñëwee ñu ne Abdoulaye nangam nga gis mu jàpp ba mu taxaw ñee jàpp fee sanga ba mu tax mais loolu moo manqué ci réew mi présentement léegi lu ñuy def mooy da nga gis benn waaju ko sumu karaatu lakki tubaabam toog ba mu neex ko ñoom ñu toog askan wi toog ñu jékki tubaab bi danoo yeewu xam nañ ne lii luy dem la yëkkati seen i mooy dugal ca bu ñu ko defee mais quand même kii kii kii paye loolu mooy problème bi fondamentalement moo tax koo ci mën di fal damay faral di bind naan le problème de l'Afrique c'est que les Africains ne choisissent jamais leur leader parmi le peuple balaa ñoo fal kenn rek fekk il a déjà les mais liées du ñu tudd kenn ndax am na loo xam ne ñëpp a ko xam waaye askan wi ci boppam gis nga mënu fekkoon waa ji jóge fële benn taximaan jël ko dugal ko ca pale ba dana doxal réew mi ndax li naaj ci réew mi xam na ko te am na connivence yoo xam ne nekkagu ci waaye boo xëyee dugg ci yu demee nii xam nga tey am na ñoo xam ne clim ba nuy dund fanu nekk moo tax bu dëgg ñëwee ñu ko gannaaw ndax ñoom li nu am yëpp en réalité seen mérite mayu leen ko boo déggee sànq bi ñuy wax le pays va mal ma jox la sànq ma ne la Fatick ça bon personnellement foofu laa gën a xam à part man leen sa va mal le le problème se trouve dans le choix des hommes ça pose problème quand même bu ñu ñëwee même au plan national ma ne la erreur boobu li tax le président Macky Sall bi mu wax rupture ñun yàlla dafa dogal ne na mu bokk man neexu la wax comme je dis souvent mais dañu bokk ci ñu njëkk a théoriser rupture Moustapha Niass doy na ci seede Abdou Latif Coulibaly doy na ci seede ba may wax boo demoon YouTube di nga ko fa gis ba ma naan rupture dama noon rupture avec la pensée erronée communiste socialiste rupture d'avec la pensée unique libérale et rupture d'avec les présidents d'obédience étrangère. Nous voulons d'un régime de rupture basé sur une pensée réaliste, foncièrement ancrée et enracinée dans les valeurs culturelles positives négro-africaines. bu ñu wax rupture tey gisuma rupture coupure laa gis bu dee on veut dire les choses telles qu'elles sont du par parloo wala nangam parce que affaire aussi fekk diagnostiqué wuñu ko du ñu xam problème bi la mu doon parce que bëri na le président bi Diouf bi mu fi jóg lu mu wax xamutoon ne meew day juróom c'est parce que quelque part ce qui se devait de lui dire ce qui se passait dans ce pays waxuñu ko le président Macky Sall comme ni nga ko waxee léegi <clears throat> personnellement euh, moi je suis convaincu de sa de sa bonne foi peut-être am na yéen a def mais Reagan dafa am lu mu waxoon mu am solo le président Reagan bañ ko ne monsieur le président on on pense que vous êtes intelligent et bien sûr vous êtes intelligent il dit ah, je sais pas si je suis intelligent ou non mais je sais que je suis je suis suffisamment intelligent pour m'entourer des gens plus intelligents que moi problème mu Sénégal li tax man du may nangu gars yi di mere Ablaye Wade ñi koy xas man la ni ngeen ñi koy xas comme ñiy toog ba tey man leen am na yoo xam ne tey bu fekkoon ne soo maam dafa ma doon naan gor du topp gor gor day ànd ak gor waaw wëlbatiku na ma képp koo gis bu ñàkkee di daggu ñu am mu ne moytul ma ko baaloo du bono ngi noonu ma ko am mu ne ndax bu su bu amee ku ko daggul ku ne doo jot ca la mu yor moom la ñuy gis ndax boo nekkee ci parti tey ñii fi naan Karim Wade ma leen Karim a beaucoup plus de mérite que vous parce que dégg musuma ko dégg mu saaga kenn mais yéen ba Abdoulaye di jël poste ñu ngeen di wax dañ ko koo jox ñii daa ministre karab-karab fu ngeen nekkoon waxu leen dara da ngeen noppi man am na loo xam ne tey bëgg nekk di wala laa du tax ma wax lu ma war ta wax ngir neex président Macky Sall wala ngir nax du ma ko def ndax itam du du yow ndax am na loo xam boo ko waxee waxaloo ko sa bopp sa askan nga ko waxal te ku toog ku ne <laughs> dafa nga da nga am ñoo toogal loolu na ñu ciy bàyyi xel donc bu ma ñëwee mën a la comme ça marche près nga jël ñu ne un ministre de la république donné boobu la ñu faussé comment peut-on faire de quelqu'un un ministre de la république sur la seule et unique base alors que ce personnage là a un bétail politique ça me ça pose problème personnellement bu pertee ñu dàq ko loolu dafa graaw tey bu loolu jàllee ñu ne la PCA ñu bëri xamuñ li PCA tekki un président de conseil d'administration nga jox ko koo xam ne mënul bind administration jàngul xamu ca dara nga jël benn gone boo xam ne xamul tous mu jóge fële karab karab ñu ne DG nangam nag ça pose problème. bu loolu jàllee. Hmm. ma ne naa leen fonction boobu moom bu fekkoon dafa voyagé ci yoonu suuf bi la jël moom lépp la buub parce que PCA léegi moom <laughs> nit day xëyee këram rek ñëw nekk ko. man xaw ma daal ça renvoie à lan ci réew mi. li nga wax léegi daf may rappeler ma tooñ ci bon puis c'est un cousin ma tooñaale ko ci le président Macky Sall. Euh, dama euh, fin fond en fait euh, de Ziguinchor am benn góor gu ma interpellé. mu ne ma su ma doom mu ne waa mu ne ma noo sant ma ne ko fay foo dëkk ma ne ko ah Fatick laa dëkk jaxaaw mu ne ma waaye kon xam naa ci peese bi nga bokk mu ne waaw mu ne ma xaw ma lu ngeen di peese waaye matagul li ba <laughs> donc déjà c'est une interpellation man la d'abord bu demee noonu mhm. rupture boo ko bëggee indi mhm. quand ci doxalin wala tey askan woo dem problème bu ñu mën a am yàlla bu doon jàngaro sax jàngaro fu mu feeñ ga gàllaaj nga koy faj sunu borom nëbb na ko fa kon tey buñ toogee ñu ne Sénégal doxul parce que jusqu'ici buñ ne doxul itam doxegul ni ko askan wi bëggee c'est mm-hmm. parce que quelque part on on s'intéresse pas aux ressources de qualité fi ma la koy waxee tey rupture la rupture aurait prôné aujourd'hui aurait voulu que yow bañ lay suivre yàgg na mm-hmm. débat bu mel nii ak boroom xam-xam yi fi jaar ñeneen ak ñeneen nga am loo ciy wone donc tey pour man lu jaadu woon na nga xëy xëy rek ñu ne alors tac tac tac on t'envoie une lettre ñu ne le président de la république lay recevoir parce que nangam ak i nangam mais ce n'est pas le cas dañuy jël jël waay yoo xam ne ay caaxaan lay def ne day wéyantu yu kenn xamul bu bëggee gis président gis ko ça pose problème kii universitaire la mënul def loolu ça pose problème bu loolu jàllee le parrainage de ces maa ngi dégg sëñ Abdou Junior di ko wax am na foo xam ne dañ koy bàyyi mu wax ko ndax kilifa la moo fa sañ a waxee xam dugg sax ci cadre diine ba <laughs> mais fa may waxee mooy un ministre de la république le président la république nga dégg ci télé bi ñu ne la làmb am na bërëb sàngam sous le parrainage du président de la république ministre nangam ñiy DG nangam ay baal ak yoo xam ne amul bopp amul genn ñu jël ay DG ñemee taxaw dem di fa joxe suñu xaalis biir benn waaju sol benn mbaxanaam xëy ñu ne alors mu ngi séddale xaalis ça pose problème mm. la rupture aujourd'hui ma ne la tey dama ci waxtaan ak benn waaye mu ne mu woy bourse sociale nangam karab karab ma ne mais loolu c'est inutile cent cent milliards disons nga jox ko léegi benn waaye mu def ko puuj paajam lekk ko parce que da koy lekk vingt cinq millions yooyu moi j'aurais préféré parce que bu ñuy dox dafa am lu ñu war a jàng ce que j'ai appris tey da ngay dem compagnie boo dem am na un pourcentage boo xam dañ ciy jël ci les hommes de couleur je parle de des noirs mm-hmm. mais tey j'aurais préféré tey surtout compagnie yi nga xam ne peut-être euh, état bi dina ci dugal subvention maanaam ci taxe wala nangam ak nangam qu'on puisse dire alors yéen ñi nga xam ne vous êtes issus de telle famille au bas de je sais pas quelle échelle ñu ne alors seeni doom bu nga amee nangam ak nangam ñi nga xam ne en deçà en deçà de celui de ceci mu ne la ñooñu tey tey tey yow sa doom ca la nekk mu nga bàkk wala mu ngi BFM wala moo xam fu mu mën a nekk dana fa mën a def stage bu ko defee ñoom mu am pourcentage boo xam ne dañ koy jël ci ñooñu mais au moins loolu ça va bu ëllëgee kooku bu taxawee ba commencé kii moom dana génn ci cadre boobu te da nga gis dana ndóol boobu dana ci génn mais boo ñëwee nga jox vingt cinq mille ñu puuj paaj ko nga toog trois mois nga puuj ñu doomu daa ko tukulóor yeeg joolaa yi ñooy gën a sawar ci loolu <laughs> waaye ñun lañu gën a yittal tey am parlant de ructure tey au niveau du Sine mooy tey nga jël béykat ba fexe ba machine yi ñëw mu mën a béy loolu mooy wax ci tey li ma naxee un ci débat bi neex na ma lool quand même mais li ma ci kii mooy pourquoi ces remous là ay nit ñoo xam dañoo daje mbooloo moo xam ne pratiquement képp pouvoir wala dagg gâteau moo leen boole leneen boolewu leen parce que bu dee débat xam-xam doo leen dégg ci xam-xam mais bu nu yëngalee kundung rek occuper médiatique te tey est xam nga ne boo demee ci àll bi famine bi tàmbale na. Mhm. man damay dugg fu ne di xool di gis. daanaka euh, jur yi yooyu nanu. am na béykat yi jommi nanu nit ñi jaaxle ne c' est ça ce qui devait euh, être. en fait occupé en fait l' espace public mhm. national. Mhm. mais mënut a ñàkk parce que nii la demee. en à côté de a mën la tey le pays en danger man daane la fa mais man dama koy nangu du ma ko wekk ci Macky Sall Massamba Mademba mais ñun ñoo am problème. tey li ma ciy cité xam bu la neexee suba ñu jox ma citation man la tey quand je vois seen petit gallé je suis désolé je suis désolé mais loolu day yàq réew xale yi nga xam bu école tëjee xëy na war moon tudd tur bi mais bon en fait mm, pour des questions d'élégance euh, quoi voilà maa ngi ciy jéggul mais je veux dire nga dajale ay gone yoo xam ne école tëj na ñu waroon a jàngile kon ndax ma du kumba hymne national wala yu demee noonu wala lu am njëriñ ñu ñëw benn waa ji woy fële di tëb di dal ñu ne moom la ñu ku bëgg baal boo bëggee baal mën ngaa baal tubaab bi boo demee ci ñoom boo amul fukki at ak juróom doo dugg ci boîte ba boîte bu sàngara ne balaa nga faa dugg am ñaar fukki at ak benn ñun lu tax ñu bëgg dajale ay xawma benn woykat ñëw dajale ay gone ñu jël période vacance ñu bëgg koo def léegi muy liggéey ci télé yi loolu ngay gis ça pose problème bu demee noonu le citoyen de l'émergence bi mag président Macky Sall bëgg du mën a am d'accord du mën a am parce que les gens ne seront maru Marouba Fall en tant que ah, écrivain nga xam ne war nañoo delloo peuple bi ñuy wax nag son pouvoir nga xam ne le pouvoir pour le peuple par le peuple mais dafa mel ni aussi yéen xaw ma da ngeen ko bàyyi ñeneen ñi wala ñeneen ñoo ñëw fekk si leen seen kaw. xam nga réew moom ku nekk dafa am foo waar si war a béy ñun ñi nga ay jàngalekat lañu ay écrivain lañu dañuy taalif ah am na foo xam ni dañ fay taxaw mais. ah li ñu seetlu yaakaar na ni yëpp seetlu nañ ko comme ni ma ko waxee rek dañu ñu boo bindee sa téere kenn du ko yër ah boo demee ci école yi téere yi fa gën a gën fa nekk ci programme yi mm-hmm. man toujours dama koy wax nañu gën a yitteel ci programme yi mm-hmm. téere yi nga xam ne ñun ñoo ko bind te ñu baax jaar yoon ndax itam téere du jaagee nii lañ cay jàng rek téere aussi produit marchand la ndax téere boo ko jëndee dundal nga ko ko bind dundal nga imprimeur ba dundal nga éditeur ba te aussi ah delloo nga njukkal sa askan ndax lañ cay wax day dellu ca askan wa mais ba ñu indépendant ba léegi daanaka moom nañu suñu bopp mais boo moomee sa bopp te sa làmmiñ moomoo ko daanaka yaa nga ca mbuum buumu jàmm ba léegi ndax wolof dina ci làmmiñ ndax léegi ñun bala ngaa kontaan takk sol say veste cravatu di làkk tubaab tubaab yoo xam ni mooy français de France mm-hmm. ak sol sa veste man bu ma solee veste ndax damay xalaat la ma sama bàyyi waxoon mm-hmm. ma ma jëkkee sol sama veste ñëw taxaw di kii mu ni ma ah, jekk na de wante ña tojoon suñu kër yi lii lañu ñu soloon <laughs> raam <laughs> yi mooy les les les les démolition yi <laughs> mhm. tabax sa kër ba mu kii ñu toj ko xam nga ci réew moo xam ni dañ dañ dañoo bëgg a suqali donc euh, ci culture bi dafa dellu gannaaw ndax culture bi au Sénégal li ñu gën a fonk mooy folklore rumbux rumbux ay yi ñuy ges ci télévision bi mhm. te comme ni nga ko waxee médias yi am nañ ci responsabilité tey bu politique bi occuper le devant de de de la scène ci journaux écrits politique parler politique télévisé politique mais alors que réew li koy doxal vraiment comme ni ma ko waxee politiciens yi ay représente ils jouent des des postes de représentation mais ñuy doxal réew le développement c'est ailleurs mais foofu aussi damay faral di wax ne les médias sénégalais ne sont pas politiques c'est un peuple politique parce que loo bind wala nga wax ko te du politique dañ lay zappé ne ça dépend yaakaar naa ni aussi média yi dañu war a jouer seen rôle waxoon naa ko fii keroog sur scène média du lu ñuy fowe dañ ko créer pour yeete maanaam par exemple man dama scotché sama rajo si fi parce que journaliste bi buy wax euh, euh, littérature da ngay defee ni écrivain la buy wax politique da ngay defee ni mën ca digg ba mm. dañ koy maîtriser mais fii da ngay gis koo xam ni day animateur la woon parce que mi ngi interviewé ay ñaari ministre ñetti ministre il se prend le gros dos dóor ay bretelam wala mu def ay affaires yoo xam ni ak seen revue de presse yoo xam ni taasu la kooku moom c'est mauvais mais li ma bëggoon a wax surtout ci politique bi mooy li ñu wax idéologie amul moo tax transhumance bi facile facile aussi euh, imbrication yi kii ndax fu la neex ju dem ndax ñëpp c'est la même chose. te compétence aussi indeetu leen waaw compétence indiwu leen. Mhm. compétence bi dañ ko teg fee wax nañ ko ba pare defe naa ni wax naa ko kii wax na ko. donc euh, idéologie moom amul. ñetti parti ma fi am ñoom ñoo amoon idéologie tout simplement du ñu ay partie de masse mais parti de masse yëpp. mbumbaay bi moo leen di yóbbu ñu gëmul dara nga sànni leen xartum jox leen 1000 francs ñu wateel la ndax ñoom dañ ni bon euh, ku fi toog rek ñoom ñëpp kif kif Ablaye waa ak Macky yam ak mm-hmm. Abdou Diouf ah, mm-hmm. pour ñoom mm-hmm. le peuple def ñu différent parce que nee nañu ku ñëwit da ngay yore sa yet yet bi ñu miin sax moom peut-être mooy gën a woyof yet bi ñu xamagul donc si bien que euh, lëngoo gi day waaw lool la léegi aussi ma bëggoon a wax ci rôlu parti politique parce que loolu la man dama defee nii fu ay mag daje dañu war a xalaat ni parti espèce su école la dañu war a former nit ñi yee leen pour loo xam ni day jëme réew mi kanam ku ci nekk xam lan mooy sa wàll ci réew mi waar wan nga ci war a bay nan nga war a taxawee ba sa quartier dem ca kanam nan nga war a taxawee ba sa commune dem ca kanam ba réew mi dem ca kanam mais ku nekk ci parti politique yi dañ amuñu comme niñ ko waxee kenn xamul idéologie sa parti mm-hmm. kenn xamul dara ci parti constitution euh, nationale bi sax ñu bëri xamuñu ko mm-hmm. la constitution am na ñoo xam ni ay intellectuel lañ te suñu sëpp constitution bi ba xool ko bu baax mm-hmm. donc yooyu aussi c'est c'est grave et puis c'est récemment seulement que beaucoup de d'intellectuels ñu bëri man par exemple maa ngi commencé voter 93 parce que bu njëkk je me disais que c'était pas la peine nga voté nga bañ a voté c'est la même chose parce que c'était pas transparent mm-hmm. mais maintenant ak isoloir nga xam ni mbañ gàcce bi da ngay làqatu ku la neex nga voteel mm-hmm. xaw na tane mm-hmm. wante ba tey parti politique yi terewul ba léegi ñun la ñuy surveiller surveiller métti ci élection nga xam ni ñi sax dañuy woote ailleurs waaw mais ba tey léegi yi ñu daan def mënatul a am ndax léegi daal vraiment élection bu jaar yoon ku ñu wa kii rek fal mm-hmm. xamal ni jaar na ndax am na ñuy jënd sax ay kii te du tee ñu gañe leen ndax bu fekkoon ni xaalis dina tax kon Ablaye Wade du daanu ndax ay milliards la la génnee ci élection yi mm-hmm. donc euh, loolu bëggoon naa ko wax am na taxawaayu askan bi mm-hmm. askan wi ñoo war a taxaw réew mi ñoo bu ñu buggee affaire yu soppeeku ñoom la ndax dañ naan politicien oto bu paan la boo ko poussé mu dem bàyyi la man ma ni leen mais baaxu oto bu paan mooy su tàkkee dem ndax yow mii puus puus rek moo la ci war bu ñu la nee merci wala ñu sànni la cent franc loolu nga ci am da ngeen di bàyyi di puus oto bu tàkku bu bu paan mhm. ki lay yóbbaale day gaare otoom bu baax ngeen bokk fu ngeen jëm mu yóbbaale la mhm. wala ki leen ni jàppale ma mais boo ko jàppalee ba pare da ngay dem sama salon bee bu ma ko wàccee ba pare ni la jàppale ma dugal ma ko ci sama salon boo ko fa dugalee ba pare waxuma la nga toog fa di xool dangay dem sa yoon ma toog ak sama salon kon bàyyi leen ku leen naan jàppale leen ma nga gën koy jàppale nit ki day ñëw nii kaay leen ñu jàppoo liggéey suñu quartier jëm kanam wala suñu réew jëm kanam en tout cas yoo yooyu la la la nit ñi war a comprendre. donc man. Mhm. loolu laa bëggoon wax si si si. si élément yi daal. Mademba Ramata Dia ci recomposition paysage politique bi tey boo ko seet ci ay partie yu bëri yëngu-yëngu yu métti na euh, booy xool itam ci biir parti muy parti démocratique sénégalais muy PS yëpp tey dafa mel ni am na ambition yu bees yuy dessiné wu mais du doon lu yomb yow ci sa njàngat boo ko doon xool tey est-ce que recomposition bi ñu xaar. mën na doon lu antu ak nit ñu yaakaar ne ñu. composition politique bi wane na ne parti yi fi gën mag am nañu problème muy PDS muy PS muy AFP ak APR donc ñooñu ils ont problème fi mu toll parce que dafa am échéance yu yu yu ah. jublu 2017 wala 19 et bu ñu jubloo ay échéance bu desee tuuti nag. di tubaab di wax le temps de manœuvre moo ñëw ku nekk da ngay fexe noo def ba bokk ci bis ba. Mhm. fa teew nga bokk ci. boo jëlelu boo jëlelu tamit nga bokk ci ci ci ci ñi ñuy tudd waaw ñi ñuy mhm. ràññee quoi donc mhm. boo seetee fan yële Idrissa Seck dajale na ak euh, Decroix. ak ak Oumar Sarr euh, ak euh, Djiboka ñoom ñëpp pour ak Balde pour former benn pôle. amoon na aussi front pour la défense de la république quoi mhm. front boobu mi ngi fi mhm. am na PDS ak leen donc ça veut dire que dafa am échéance donc ku nekk day fexe nooy positionné guerre de positionnement lañ toll mhm. ci guerre boobu nag parti bu mel ni PDS dafa am guerre de succession succession bi mooy fexe ba jël secrétaire général bu dee Karim nekkul candidat évidemment ki nekk secrétaire général moom la congrès bi di désigner. Mhm. donc ci loolu lañ toll. Mhm. léegi nag li li ci doy mooy boo xoolee parti ni ñu bindoo parti bu mel ni PDS financement bi benn nit moo moo ci ëpp lu mu ciy def mhm. léegi nag yow mënoo ànd ak nit ki Abdoulaye Wade parti am daam na mais ba léegi mooy financer parti même local yi passé li jëpp xaalisam bu bu dugal kooku nag mun leen ànd moom muy def xaalisam lépp ci kii après nga bëgg nag toll ak moom ay responsable wala toll moom ay décision ci pour de loolu day jafe moom daf du ko nangu parce que bu dee man damay def mille francs yow au moins bu amul mille francs sax nga dugal cent francs wala 250 bu boobaa bu wax jotee wala bu kaas jotee di nga mën a kaas mhm. mais problème foofu la nekk financement de partis te bu loolu wéy aussi il faut ñu xool fexe ba ni ñu koy légiférer mhm. seet benn loi boo xam ne parti financement bu dafay leer day transparent mhm. parce que munoo boo xoolee politiciens yi matuñu ñi mbokk militant ci parti matuñu un million de personne mhm. mais dañoo lëmbe réew mi mhm. foo toll politique la ñuy wax suba ngoon politique la ñuy wax booy nelaw politique la ñuy journaux yi politique la ñuy def waaw d'accord ñun taskatu xabaar yi am nañ ci part de responsable mais li kii wax moo ci nekk ñun dañoo suivre mouvance bi nit ñi li ñu bëgg ñun tamit ay jaaykat lañu jaay kuy jaay koo xam ne danga defar sa journal pour mu jar fu fi nit ñi féete foofu ngay jublu ah, ñettoon nga voyagé dem ci au fond fin du pays ñëw ak dossier waaw journal bi du jar du jar parce que loolu soxalu leen ah. finalement gis nga peuple bi presque ñooy définir matière bi nga xam moom nga leen di jox hmm. mais nag li am solo mooy askan wi daal na xam boppam hmm. xam fi mu jëm ak li mu bëgg ak ki ko jar mu xool bu bisu bu bés ba te huit rek dix huit heures xool xam ne kii moom laa ëpp yaakaar ma seet jox ko samay carte lool daal moo ci am solo. moo ci am solo Mate Baramata Dia maa ngi lay gërëm di la sant Marouba Fall maa ngi lay gërëm di la sant Ludovic Rosner maa lay gërëm di la sant Papa Latri Faye maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant Oussa Assane Diouf mi réalisé émission bi Cheikh Tidiane Ndiaye Ama Gueye euh, Cheikh Tidiane Diop ak Aïssatou Diagne mi nekkoon ci régie maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daje alxames incha allah ci beneen thème mu diine ak jamono wasalaam ñu fàttali leen nag ne grand soir day continuer ci kanam tuuti Awa Diom Dia dina dikkaat toog ak waa Fatwa ñu jeexal li des ci gi incha allah wasalaam